وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن ياتوا على أن ياتوا بمثل هذا القرآن هذا القرآن لا ياتون بمثله لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا sadaqallaahu al-aziim baarakallaahu fiik wa kasarallaahu min amsaalik asxaab alfadila saada alkiram ayuha alasatisa wal mudarrisin fi jaamiati ahmadu bamba mumassilu al idarat al mahalliya mumassilu al xukuma al sénégaliya asxaab alfadila الطلبة الجدد نرحب بكم في هذه البقعة المباركة هذه القلعة العلمية التي طالما قدمت الكثير في مجال التربية والتعليم وفق منهج الشيخ الخديم ورضي الله عن شيخنا الشيخ محمد المرتضى الذي جدد هذه البقعة وقدم الكثير للأجيال wa qaddama al kasir li dawla sénégalia jasahu llahu anna wa an almuslimina xayra nuraxib bikum ayuha almuslimun ayuha alxaadirun bismi sëriñ Mamar Mbàkke Murtada rais jaamiat Cheikh Ahmadou Bamba nuraxib bikum fi rixaabi hadihi aljaamia hadihi aljaamia allati tumassilu xutwatan jabbaara xutwatan kabira fi sabili taxqiq umniyaat wasilatina ak Cheikh Ahmadou Bamba fi tarbiya wa tansiati jiil al muslim as sahihu al aqida idan nurahibukum fi rihaabi hadihi al jamia al kabir ayuha al hudur al kiram alfayni wa sitta milaadiya alfayni wa tisat asar aw alfayni wa asrin milaadiya salaasa asara sana aw arbaa asarata sana hiya umru jaamiat si Ahmadu Bamba hadihi al umr hadihi al mudda al qasira allati law kaanat jaamiatu insaanin la qulna innahu fi marxalati dufula lam yasil baxdu ila marxalati murahaqa naahika an marxalati shabab walakin رغم هذه المدة القصيرة رغم هذه هذا العمر القصير تمكنت جامعة سي أحمد بامبا من تسيير خطوات أو من من تس من من من إسراع خطواتها ليذكر اسمها في جميع أروقة التي تهتم بالتربية والتعليم عالميا ومحليا أصبح اسم جامع أحمد بامبي يذكر إلى جانب الجامعات التي عمرها الآن خمسين بل مئة سنة أو أكثر أصبح اسم جامع أحمد بامبي يذكر يذكر في يونسكو منظمة العالم للتربية والثقافة والعلوم وأصبح اسمها يذكر في إسسكوب منظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم وأصبح اسمها يذكر في كامس الاتحاد الأفريقي الملغاسي للدراسة للتعليم العالي كما يذكر في جميع الأماكن التي يذكر فيها أو تذكر فيها الجامعات الكبرى إذا هذه المدة القياسية قام بها الشيخ مامور مكي bi niyatihi wa bi azimatihi alsalba bi taxqiqi hadihi alxutwa alkabira idan nuhanni alcheikh mamoor rais jaami si ahmadou bamba kama nuhanniu jamia alfiraq alpédagogie waltaqniya walfanniya walidaariya allati taxmal ila janibi cheikh mamoor mbàkke murtada idan ayuha talabatu judud nurahib bikum fi hada almakan alladi yumkin an taxtabiruhu usratukum althaniya wa sa tajiduuna bi annakum lan tandamu abadan wa annakum wuffiqtum fi lixtiyaar insha allah wa sa tajiduuna fi hadihi alqalati alilmia maa yasud rabaxakum fi sabili alilmi wa taxsin alilmi idan ahlan wa sahlan marhaban bikum mu hanni sëriñ Maamor Mbàkke Murtada rais jaamiat Cheikh Ahmadou Bamba rajulu taxaddiyaat kulluna naarif bi anna hadihi aljaamia lam takun li taquuma lawlaa taxaddihi li jamii suubaat wal araaqil allati wudiat amaamahu aw wajadatha amaamahu walakinaha bi azimatihi wa iradatihi sulba tamakkana min altagallub ala jamii hadihi al aqabat taarifuuna fi alfayn wa sitta aw alfayn wa tamaaniin waqafa kibaaru dawla aw waqafa waaxid min kibaari dawla kaana yumassilu qimmata dawlati sénégaliyya wa sakkaka fi jadwa hada almasruuf كما شكك في إمكان تحقيق هذا المشروع ولكن الشيخ كان يعرف بأنه يجمع بين العقيدة والثقافة يجمع بين العقيدة والعقلية السليمة ولم يجب بل تركت خطواته تركت أعماله تجيب على هذه التشككات التي تقدم بها الآخرون ولكن إن كان قمة الدولة الإسلامية شك قمة الدولة السنغالية شككت في جدوى هذا المشروع وشككت في إمكان تحقيقها فقمة هذه الدولة هي التي رجعت في سنة 2020 واعترفت بقيمة هذه الجامعة ولم تعد تعتبرها منظمة خاصة أهلية بل اعتبرتها جزءا من الدولة السنغالية تقوم بما كان يجب أن تقوم به الدولة السنغالية إذن فجامعة أحمد بامبا أصبحت الآن جزءا من النظام التربوي السنغالي من حيث يتكامل من حيث تتكامل maa al amal allati taqum biha al xukuma sénégali idan nahanniu sëriñ Mamour Mbacke Murtada bi haasi al xutuwaat wa natamanna lahu tawfiq wal mazid min al tawfiq bi barakat cheikh ahmadou bamba idan fi haasi al jalsa allati tumassil افتتاحية العام الجامعي 2019 2020 نرحب ب 858 885 طالب وجههم وجهتهم الحكومة السنغالية ليكملوا دراساتهم في هذه الجامعة إذا هذه هذا الجيل من الطلبة هو الذي نرحب به اليوم في هذا المكان باسم سيدنا مامور مبارك مرتضى في هذه الجلسة سنعطي الكلمة أولا لرئيس الجامعة سيدنا مامور مبارك مرتضى ليرحب بضيوفه ولكن ليعطي إرشاداته وتوجيهاته كما تعود أن يعطينا هذه التوجيهات wal irsaadaat allati taalama wuffiqna fi sayri wifqaha baxda kalima sëriñ Maamoor Mbàkke mu toda sa noxtil kalima li mumasili dawlati sénégaliya le sous-préfet de Ndam monsieur Mansour Diallo sa noxtil kalima baxda sëriñ Maamoor Mbàkke mu toda suma baxda suma baxda kalimati sous-préfet sa noxtil kalima lil professeur Souleymane Bachir Diagne allazi yuctabar waxid min alkawaadir alladina waqafu mubakiran ilaa janib sëriñ Mamour Mbacke Moutada li taxqiq haza al injaz al azim suma baxda kalimati professeur wal faylasuuf Souleymane Bassir Diagne sa noxtil kalima lil professeur al riyadi Mouhamed Sankhare allazi aydan qaama bi xutuwaatin jabbaara ilaa janibi cheikh li yakuna li ay li tara jaama si Ahmad Bamba an nuur wa tatamakkan min al qiyam bi amaliha fi ahsani al wajh baadal professeur Mouhamed Sankhare sa noxti aydan li professeur axar lahu makaanatuhu fi haasihi aljaamia wa lahu xutuwaatuhu wa lahu uh, maa lahu fi haasihi aljaamia al professeur Serigne Bassirou Diop sanutihi kalim baada haasihi alkalimaat sanastamiu ila kalimat rais widaadiyat jaamia si Ahmadou Bamba fi daari salaam ndaam suma baadahu sanastamiu ila ila tam ila man yumassiluuna aljiil alladi taxarraja fii jaamiat si Ahmadou Bamba sa nastami ila kalima min xiriji jaamiat si Ahmad farxu jaamiat si Ahmadou Bamba fii Dakar suma baada zalik sa nuxtil kalima li xiriji jaamiat si Ahmadou Bamba farxu Bambey suma baada zalika sa nuxtil kalima li amidi kulliyati al ulum diiniya wal xadaaraat wal insaaniya wal xadaaraat Sëriñ Abdourahmane Lo suma baada zalika narjiu al kalima ila Seex ليدعو على بالنجاح والتوفيق ثم نرفع الجلسة إذا هذه الجلسة كما نظمناها ستكون في مرحلتين المرحلة الأولى هي هذه الكلمات التي سنستمع إليها بعد نهاية الكلمات سنستريح قليلا ونصلي الظهر ثم نرجع مع الطلبة الفريق التقني الفريق الإداري جامعة أحمد بن فقط سيرجع مع الطلبة الجدد والطلبة القدامى ليجيب أو لنجيب على التساؤلات allati rubama tajulu fi xawaatirihim insha allah dalik sa takun baxda salaati duhri insha allah baxda nihaayati haasi jalsa kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokk yi fi teew noo ngi yëkkati sunu kàddu di leen dalal jàmm ci barab bii nga xam ne benn la ci barab yi nga xam ne nii yàggas na fee xam xam-xam ak jàngale ak yar waaye di ko dëppale ak njàngale bi sëriñ bi radiyallahu anhu ñu ngi leen dalal jàmm ci barab boo xam ne ni Cheikh Mahamadou Moutada moo ko yeesalaat defaat fi jéego yu mag yoo xam ba léegi ñu ngi koy fàttaliku di ko ñaane suñu borom yokk ay leer kon noo ngi leen dalal jàmm ci turu Serigne Mamour Mbacke Moutada di dalal jàmm mboolem gan yi xam ne ni ñëw nañ fekkee si liggéey bi tàmbale ba ci professeurs ba ci asatisa ba ci yi nga xam ne ni ñëw nañ bokk seeg ñu jotaay bi xëy na dañ ci ñëwaat ci kanam ñoo ngi dalal jàmm étudiants yu bees yi nga xam ne nii ñoom la état di Sénégal orienté fii ñu war a toll ci dix cent quatre-vingt-cinq yoo xam ne nii ñëw nañ ci war a ta yëggal seen njàng fi di leen xam ne ñoom bay boo ñu bàyyi xel ci ne gëm bu baax ne am nañ tawféex ci tànn gi tànn gi leen tànnal université Ahmadou Bamba incha allah da ngeen fekk loo xam ne nii dana doy sëkk wala fi ngeen di jéggaani feneen kon ñoo ngi leen dalal ci jàmm ci biir ëttub université si Ahmadou Bamba ci turu Serigne Mamour Mbacké Murtada muy barab boo xam ne nii nag barabu xam-xam la. waaye barab la boo xam ne tamit day jëmmal rek vision bi nga xam ne ni moom la sëriñ Mamour Mbacke mu daa am ci def defar ndaw ñi waaye defar ñi nga xam ëllëg ñoo war a jiite ñu Sénégal mu ci def jéego yu am solo waaye ku nekk xam ne ne ak dogoom ak pëstéefam ak yéeneem ju sell moo àggali liggéey bi fii mu àgg tey xam ngeen ne Alfayda maanaam 2006 lañ teg première pièce première lañ def pose première pierre bu université Ahmadou Bamba ñoo ngi ci 2019 wala 2020 kon man ngaa jàpp ne fukki at ak ñett wala fukki at ak ñeent mooy dundu université si Ahmadou Bamba loolu nag bu doon ci nit dañuy wax ne léegi du tànk la ba léegi du tànk waaye diir bi li muy gàtt gàtt dundu gi li muy gàtt gàtt université Ahmadou Bamba léegi weesu na wala boobu ñu ngi koy tudd fépp foo xam ne nii danañ fa tudd yeneen université université yi nga xam ne nii yenn yi bañ sa soobee ëpp na juróom fukki yenn am na téeméeri at tey turu université bi na ci UNESCO nga xam ne ni mooy seetu lépp lu jàng jàng la ci àdduna bi àgg na ci ISIS koo nga xam ne mooy seeti lépp luy jàngal ak jàngale ci biir jéew réew yi nga xam ne ni jullit yi ñoo fi gën a bari àgg na CAMES nga xam mooy toppatoo njàng mu kawe mi ci biir Afrique ak ma ak ma ak yeneen ay ci aju kon tey fépp rek ci àddina bi wala ci biir réew mi ña koy tudd université Ahmadou Bamba te dundam àggul ci lu fukki at ak ñett fukki at ak ñeent loolu nag su ma nee am kon liggéey la ak maanaam loo xam ne ni sëñ bi def na ko ci effort bu mag a mag boo xam ne ni moo koy may tey mbir mi àgg fii mu àgg te ku nekk xam ne nag du woon lu yomb lu jafe woon la ndax ay jamono ñëwoon na ñu gënoon a kawe booba ci état wu Sénégal nga xam ne ñoo doon incarné état Sénégal demoon nañ ba bis ñu sikki sàkkaloo nit ñi te ndax projet bi mën naa taxaw ndax sax projet bi am na faisabilité wala si na ko mën a réaliser ak yu bare bare loolu bu doon sëñ bi kuy découragé la kon foofu liggéey foofu la yem waaye loolu daf ko yokk courage yokk ko ngëm-ngëm yokk ko pas-pas mu tegtale ne moom kon nitu défi la nit ñu mag ñi nag kilifa yi balaa nga leen xam dëgg-dëgg da leen teg face au défi booba ngay door xam ñii seen personnalité dëgg-dëgg kon foofu la sëñ bi gën a takkoo ba tey ci 2020 2019 2020 état du Sénégal ci boppam moo walbatikuwaat ñëw reconnaître université Amadou Bamba nekkat léegi sax moom jàppeetuma ko privé waaye maa ngi ko jàppee ne moom maanaam démembrement rek ci état bi ci système éducatif bu Sénégal moo tax lépp lu ñu jëflante ak ay maanaam école publique yeeg maanaam université publique yi mën nañ koo jëflante ak université Amadou Bamba kon reconnaissance la boo xam ne ni tey ña taxawoon di ci sikki sàkka ñoo taxawaat foofee ñoo taxawoon tey def reconnaissance boobu loolu kon mérite la ci sëriñ bi nu ko ciy félicité bu baax a baax di ko ñaanal sa borom gën ko cee yokkal ay tawféex yu bare bi nag dañ koy seef ñaari xaaj incha allah jotaay bu njëkk bi mooy li aju ci kàddu yi ñu fa a dégg danañ njëkk a jox kàddu gi sëriñ Mamour mi nga xam mooy président université Cheikh Ahmadou Bamba su noppee ñu jox le sous-préfet mi nga xam moo fi représenté état bi see man soo Diallo su noppee ñu jox kàddu gi professeur Bass Souleymane Bassir Diagne mu ngi ci yoon wi ñëw balaa kàddu mag si dana agsi dana agsi incha allah moom it muy koo xam ne nii ku ñu xam la mu liggéey liggéey bu mag wetu sëñ bi ci jàppale ko ba sëñ bi taxawal lu bare ba li nga xam mën na koo taxawal daañu ko jox kàddu bu ñëwee bu noppee dañ jox professeur Mouhamed Sankare nga xam ne moo tam ku jàppale sëñ bi la ci liggéey bi waaye nekk ku ñu xam ci senegal moom it dana jàpp dana jot li kàddoom bu ñëppee bu ñu jógee professeur Mouhamed Sankaré danañ déglu professeur sëñ Bassirou Diop moom itam di ku ñu xam ci jàppale gu ñu jàppale sëñ bi ak taxaw boo xam ne ñu taxaw ci wetam su kàddu nag danañ jox kàddu yi étudiants yi danañ njëkk déglu ki nga xam moo jiite amical bi nekk ndaam président amical étudiants yi nekk Daarul Alimul Xabir danañ ko jox kàddu bi mu tënkal ñu ñoom dem seen gisin ak seen yëg-yëg ci université Cheikh Ahmadou Bamba suñu noppee danañ jox ñi nga xam ne ni ñoo jàng ba nopp génne ci université bi léegi dem ci monde du travail te am ay barab yu baax yoo xam ne ko fay yëngutu ku ci nekk ñoom tey am nga loo yëngu bu ñu xoolee dañ ci kanam tuuti incha allah ñooñu tam daan leen jox kàddu daañ jox kàddu ñi nga xam ñoo génne université Ahmadou bàmba bi nekk Dakar tey def affaire technique ak technologie bu ñu noppee dañ jox maanaam annexe bi nekk Bambey université Ahmadou Bamba bi nekk Bambey nga xam ne muy jàngale mooy wàllu mbay ak càmm danañ jox ña fa génne ñu wax ñoom bañ génnee ba noppi lan lañ gis ci lañ doon jàng su ñëw ñu jàllee nag ñu jox kàddu gi sëñ Abdourahmane Lo mi nga xam mooy doyen fac faculté bu science religieuse humanité et civilisation bi nekk daal wax di mu xabir fii ñu nekk tey moom lañ jox kàddu gi mu wax ñu mu présenté ñu jàmm si Université Ahmadou Bamba waaye xamal ñu tam filière yi nga xam moo fi nekk ak njàng mi ak liy xaar xale yi ak yu bare bari yoo xam mën naa am mi ngi ci seen xel mu bëgg a leer daa leen ko leeral bu ko defee bu ñu noppee ni ci sëñ bi joxee ndigal balaa ñoo ñaan bi si Abdourahmane pare balaa sëñ bee jëlaat kàddu gi di ko tëj di def ñaan daañ jox kàddu sëñ Cheikh Ali wala sëñ Moussa Abdoulaye Karam ci ñenn ñi fi teew mu wax ci turu kàddu njaboot bi nga xam ñoo fi teew bu noppee nag ñu tëj jataay bi sëñ def ñaan motale ay kàddoom ñu tëj jataay bi yeew yi gan ñi ñu dellu ci biir nopp bu ñu jullee ba noppi nag dañ defaat deuxième séance boo xam ne nii dañ koy seq équipe technique bu université Amadou Bamba maanaam ñu yore administration bi ak ñu yore njàng mi ci université bi ñoom ñooy ñëw toog ak étudiants yi nga xam ñoom lañ fi orienté ñu ñu bees ak ñi nga xam ñoo fi nekkoon ngir benn benn ci a laaj yi nga xam ne ni am nañ ko ñu mën koo tontu balaa ñoo delluwaat ci kër yi kon loolu mooy ñaari jataay yi nga xam ne nii fas nañ ko yéene def donc avant de donner la parole à Serigne Mamour Mbacké le président de l'université Ahmadou Bamba nous remercions l'équipe technique l'architecte l'ingénieur le chef de l'équipe de la maçonnerie et toute l'équipe technique qui a réalisé ce magnifique amphi. C'est lieu qui témoigne, qui prouve que Serigne Mamour Mbacké a pour donner tous les moyens tous les moyens pour que l'université Ahmadou Bamba soit un véritable temple de Safar. Donc merci à monsieur l'ingénieur, merci à monsieur l'architecte et l'équipe qui a travaillé avec vous. Donc au nom du Seigneur Mamour Bakimotoda, on vous remercie et on vous de ce travail bien fait, bien euh, de qualité que vous avez fait, que vous avez réalisé ici à l'université Ahmadou Bamba. kon xam naa kazaalik ay dem nu xaddimu jazila sukr wa taqdir للبعثة المصرية هؤلاء الذين وقفوا إلى جانب الأزهر وما زالوا يقفون إلى جانبه لتحقيق أمنيات التي كان سي أحمد محمود المرتضى يتمناها في التربية وتنشئة الجيل إذن xam naa kon balaa ñoo gën a guddal dañu daal jox kàddu gi sëriñ Mamour Mbacke mu toddaat mu ubbi jotaay bi joxe orientation yi ñu door continuer liggéey bi incha allah kon sëriñ bi bismillahi rahmaani alhamdulilah rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi ddin salawatullahi wasalaamuhu ala sayidina muhammadin abdihi wa rasul maal shuyukh wa zama alkiram xadarat assada alkiram assada professeur Souleymane Alladji xatal lam yasin walakin sa yasin baada xale السيد بروفيسور محمد سانكري السيد الأخ بروفيسور بشير و حاكم المقاطعة السيد عميد كلية العلوم الدينية والإنسانية والحضارات الشيخ عبد الرحمن لوب السادة الأساتذة والمدرسين الحضور الكرام باسمي وباسم الخليفة العام الشيخ منتخب مكي yuqaddiru juhadakum wa xatawaatikum wal mataa'iba allati kaabattumuha wal masaqaat allati maarastumuha li xuduuri haadihi al-jalsa at-taalimiya awalan uriidu an yutlaq al-judud aw ad-duyuuf sharafani hada alliqa bikum lil marrati al ula li tarxibi bikum bayna ahlikum wa fi baytikum albabi tamayastum wa xasaltum li ala shahadati sanawiya natijata juhodikum wa saxqakum saxqakum ad duxool fi marxalatin jadida li taalimi al aali wa marxaban bikum fi hadi al balda daari al aalimi al xabir التي لها ماد عريق في تاريخ التربية والتعليم في السنغال وقد أسسها الشيخ أحمد بامر رضي الله تعالى عنه سنة 1891 خصيصا للتربية والتعليم وتزكية النفوس وتهذيب الأخلاق وكانت مدرسة عامة لجميع المسلمين والمسلمات وفي أوائل السبعينات في القرن الماضي تفرعت منها مدرسة الأزهر التجديدية التي أسسها الشيخ محمد المرتضى مكي رضي الله تعالى عنه لتعمل جاهدة بمواكبة التعليم مع تحديات العصر والحفاظ على الأصالة القديمة وتطور العصر حيث تدرس فيها المواد الإسلامية وغيرها من المواد الأخرى واللغات المختلفة أيها السادة الطلبة إن هدف جامعة الشيخ أحمد بامبا هو تجديد ذلك المنهج القوي لأننا رأينا منذ عقود من الزمن طلابا واصلوا دراساتهم في الخارج منهم من حقق ما لأجله خرجوا ومنهم من خرجوا أثر النطاق وأثاروا البلبلة والفوضى في مجتمعاتهم نتيجة التأثر بتلك الأفكار التطرفية والإرهابية وبإراءة مادية وفسر لهم الكتاب والسنة حسب مفاهيمهم الخاصة لاعتبارات مذهبية وأفكار حزبية ولذلك رأينا فتح جامعة الشيخ أحمد بامبا للطلاب الراغبين في مواصلة دراساتهم وشعار هذه الجامعة والجامعة الإسلامية العلمية لا معارك حزبية قومية وقد كسرنا حواجز اللغة والطرق والقبائل لأن الطالب هنا يتمكن عند التخرج من ثلاث لغات العربية الإنجليزية الفرنسية كما حاولنا نصر رحل المؤاخاة بين الطلبة ليس بينهم نزعة النزعة الطائفية أو القبلية وتركيز المنهج الدراسي فيها على المذهب السني الصوفي كما كان أسلافنا أصحاب الطرق الصوفية كالتجانية الخادرية المريدية اللهيبية لأن أصحاب هذه الطرق طبقوا ذلك المنهج السني الخالص ولذلك لا نصبح بأي نصرة طرقية أو حركة تطرفية طائف مذهبية أو خبلية صحيح أن الإسلام وسيلة لتحرير الفكر وانفتاحه وفهم الإنسان لنفسه وللآخر wala hum mabadiu awaliyatun wa qaidatun asasiya la budda min ixtiramiha fi kulli duruf wa hiya xuriyatu diin fi masalati l iman wa tamir la ikraha fi diin walakin li kulli mas muassasatin ahdaaf wal xaasa wa baramijuha taalimiya wa tarbiya wa qabla alxitaam ayyuha al ixwa sawfa nadru alxajaru al asasi fi fi shahri ibril insha allah li iqamati mabadi li idarati al jamia wa kulliyaati wa sakanaati wa mataaima li talaba wa fi ma yaxusu hada al maqan alladi naxnu fii sawfa nujahizu sakanaat li taxfiifi abaai baada talaba wa fi lxitaam ashkur asayid rais aljumhuria Macky Sall bi waasitati wasiri taalim al aali wa taalim al asasi acheikh asayid Cheikh Omar Anne al tashiilaat wa tawjiihaat li tashiil haadihi al mahma wa taxqiiqi haadihi al nataij wa shukran wa asul jami al xaad wa ashkur jami al xaadirin wal masulin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu ci sama tur ak turu sëriñ Muntaxa Mbàkke xalifa ñu ngi nuyu ñépp tàmbalee ko ci kilifa yi fi teew ñi nga xam ne maam ñoom ñoo bokk taxawaay moom la si Moustapha Abdoulaye Kane ak sëñ ali Aliou ak bokk yi nga xam ne noo ko bokk maa ngi leen di nuyu ci seen tur di nuyu tamit suñu gan yu yi fi nekk tam lekk ci ci le présenté bi sous préfet mu jotti loolu ñu nuyoo ministre de l'intérieur ba ci président de la république di nuyu nag professeurs yi yi nga xam ne ñoo fi nekk tàmbalee ko ci professeur Sankaré ak professeur Bachir Diop Bachir Diop nag professeur la wante dafa yor beneen liggéey boo xam ne sax du ku war a toog ci jotaay yi ndax inspecteur d'état la kooku fu mu nekk euh, ku ne xam ne ne la tax mu jóg wan nañ ci bàyyi xel ne euh, surtout na yéen xale yi na ngeen fexe ba bu leen bokk ci ñi ko tax a jóg ëllëg yàlla na leen yàlla may ay ndam nag ak place yu baax waaye ngeen xam ne ay valeur yi nga xam ne mooy tax nit ñu di ko gëstu ndax jàpp ne luubal na yéen bu leen ci bokk comme ak de ab déplacé du lu tuuti ndax bari na lu koy xaar te bari na loo xam ne itam wóoru ca feeñ kon ñu ngi lay nuyu sëñ Bachir bi sunu sunu lépp euh, Bachir Diagne dina ñëw moom itam di nuyu professeur Sankhare mii tamit ndax dafa am ñoo xam ne moom mii bi ñuy tàmbali lii moo nekk mu mu dir de l'enseignement directeur général de l'enseignement supérieur kon di professeur mathématique di arabisant tamit wante li ci gën a yéeme mooy boobu moo yor boobu liggéey te liggéey bu sensible ci état la état la te ministre la te directeur général de l'enseignement supérieur ku xam suñu réew yi xam ne moo gën a diis lu bari mu yore ko bi ñu ko waxee xalaat bi ndax xalaat bii kët euh, di ko sëñ Fallou waxee bare na ñoo xam ne amuñu gis-gis bu sori gis-gis bu sori mooy jàpp ne rek luñ xamul ne lu mën a nekk ci ñoom la rek wootu mën a nekk te nit ki lu muy def loolu bu fekkee xam na ko kooku taxatoo ñuy wax. dafa war di def di jàng di jéem ba def dara loo xam ne kenn defu ko def loo xam ne bu jafe la loolu mooy résultat kooku moom itam mu nekk loolu taxaw ci lool di ñu jàppale lépp lu ñu ko mës a ci xalaat état jafe na sensible na ci lu mel noonu waaye def ci ànd fexe ba gunge ñu ci xalaatal ñu ci bu dee loo xam ne sax mosul am ci état day fexe ba état na ko kon tamit loolu tamit bala ñu cee sori ñu jëpp ñu nuyu ci tamit président de la République parce que danañ ci dellu si ndaxte. jàngu arab am nañ ci lu jege ay ñeent fukki xam nañ lu bare fii lu ne daj nañ ko fi jëmmi diplôme ci boppam professeur Iba Der mën nañ seede la ci parce que mu ngi nekkoon si de l'éducation nationale lu ne lu ne def nañ ko ngir ñu nangu diplôme bëre boobu sax xëy na ay bàkk ay guñ ci bu baax mosul am te booba moom mooy nekk ministre bi waaye amul woon dogal wante ñi ko jiitu woon xëy na loola mënuñu ko woon xam bu baax kon suñu demee ba président bi ñëw ñuy nekkee ñu ñuy waxtaan ci loolu ba mu xëy nangoo ko reconnaître diplôme arabe mu yemale ko ak diplôme yi nga xam ne ñoo fi jàng nasaraan mais kooku war nañ ko cee ndokkeel parce que fokk dina dugg ci histoire te loolu tamit am na solo lool te dañ ko war di wax parce que tamit xam ñi xam njàng ak arab xam nañu fi mu yëf yi toll woon loolu yi tamit bu ñu profité ci nuyuwaale ministre de l'enseignement supérieur bi fi nekk léegi moom i tamit xam ngeen lu bari ci ay étudiants état bi daf ko kii waaye ñun du caa génne loo xam ne daf ñu neexal parce que état du neexal kenn lu muy def lu ne da koy jàngatal boppam kon bu jàngatee ba jàpp ni fii am na war nañ fee mën a bàyyi ay étudiants yu fi ñëw kooku tamit ñu ko ciy sant bu baax moom mooy Cheikh Omar Anne ah, di nuyu bu baax kilifa yi fi teew yépp ki nga xam mooy doyen Cheikh Abdourahmane Lo ak mboolem professeurs yi fi nekk ak docteurs yi fi nekk ñi nga xam ne ñooy jàng di nuyu tamit étudiants yi di leen jottali nuyoo tam sëriñ euh, Muntaxa Mbàkke di wax rek ne yéen ñi nga xam ne yéen ay étudiants yi fi ci gan te fii di seen kër ndaxte euh, euh, ndaxte gan mooy ki nga xam ne day ñëw di dem mais nag yéen fii da ngeen fi war a nekk parce que bala ngeen fee jógee da war a nekk nit ñoo xam ne fu ñu mën a dem ku ñëw ci ñoom gan lay doon ñoom parce que ñoo war a nekk ci niveau yoo xam ne niveau. kawe la ci ay valeur wante ci ay doxin kon dafa mel ne barab bi yéen a tax kon du ngeen fi gan ndax yéen a ko moom ñu ngi leen di nuyu bu baax nag ci premier ci li nga xam ne mooy daje bu njëkk bi nga xam ne am nañ ko ak yéen ñu ngi leen di dalal ngeen xam ne seen kër ngeen nekk ngeen xam ne tamit seen néeg seen kër ak seen néeg ngeen nekk xam ngeen ne nag euh, da ngeen am ay baccalauréat euh, boo xam ne da ngeen koo am loolu muy ñu ngi leen ciy félicité bu baax loolu tax bëgg ba ma Sénégal may leen orienté leen fii ci université Cheikh Ahmadou Bamba mu nekk beneen beneen beneen beneen beneen beneen beneen euh, jot beneen euh, doxin boo xam ne tamit am nañ ci sas ñun ndax suñuy doom ngeen wante yéen itam nag am ngeen ci aw sax ndax yéen ndax yéen sax yéen moom tool bi kon li am solo mooy ñu leen ci dalal ngeen xam ne loolu la yéen a ko moom lu fi nekk ak lu mu mën di doon yéen a tax ñu ko fi def euh, di leen dalal lépp na ci dëkk bi mooy daaral alimul xabir dara alimul xabir ci ab gox la ci biir Touba wante fii Serigne Touba daf ko fii dafa am histoire bu pare ci wàllu taarix ci wàllu histoire ci wàllu éducation ak ak enseignement ndax Serigne tubaab moo ko sanc tur wi rek tudde ko daaral alimul xabir kon bi mu koy tuddee euh, euh, xëy na moo xam ku ne xam waaye résultat bi li ñu ko gisee léegi mooy wuy na aw turam parce que alimul xabir moom lu nekk ci biir kon moo ko sancoon ci cent 1891 jox ko sëñ Daam Abdourahmane mu di fi yar ay doomam ay njabooti sëñ Touba ñépp fi lañu jabe jaar ñu bari ci ñoom la ñu jaar muy góor muy jigéen mu yare leen fi jàngal leen fi alxuraan kon barab bi dafa am histoire baax ci xam-xam kon yéen ñi fi ñëw kon def naa ne war ngeen fee sàkku li ngeen bëgg ci seen jàng yépp yàlla mën na ko def yàlla leen ko defal école bi nag école ñëpp a jullit yëpp ko moom jullit yëpp moom ndaxte loolu mooy doxinu nit ñu baax ñi nit ku nit ñu baax ñi amuñu woon ku ñuy xàjjale ku ñuy boole ci seen bopp ku ci bokkul ndax yàlla fekk yàlla rek lañ doon wooteel ak yonent bi képp ko yàlla ak yonent bi ñor bu boobaa ñoom ci seen njaboot la loolu mooy barab bi loolu moo doon école yi tam sëñ Tuubaa école Cheikh Ahmadou Bamba tamit loolu la woon école bii ñu xam ne mooy bu fi nekkoon boo xam ne ñëpp ko bokk ci tàmbali euh, euh, euh, ci année ci at yi soixante dix année le soixante dix yooyu tamit ci la sëñ Mourtada maanaam soixante quatorze ci la sëñ Mourtada teg tàmbali fii ñuy wax école al azhar kon léegi am na ñeent fukki at ak juróom léegi moo am mën a am sax léegi mu mën a am léegi mu jege juróom fukki at bi mu ko fi tegit te école boobu lépp école sëñ école boobu ñuy wax ci la bii jógee mais bi sëñ laa Mourtala ñëwee dafa sos daf ca def loo xam ne mooy yeesal ko doon wéy mooy yeesalaat yeesalaat ni ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon junjee ak ni ko sëñ Touba doon junjee mooy mu nga def effort def dara mais bu fekkente ne loolu defoon rek luñ def rek saa boo dikkee fekk fa loola ca ngay topp mooy kooku toxul ñu wax ndax loolu bu doon loolu àddina diine sax du du kon loolu moo tax bi mu ñëwee mu ubbi tàmbali école ñu tudd ko al azar boobu nag. Eh, mu nekkoon jamono yu jafe jamono yoo xam ne jafe na lool moo tax mëni su ta wax lépp waaye jafe woon ndax du bari ñenn ñi sax amoon nañu dëgg ndaxte amoon nañu dëgg mooy dañ ne woon eh, barabu jàngukaayu arab la toujours dama leen di wax ñun jànguñu arab jànguñu chinois jànguñu japonais diine lañ soxla ak ak xam-xam kon ñi doon raisonné ne arabe la mooy culture lañ defoon moom lañ fi jàng ñu jànguñu culture naar jànguñu culture tubaab ñu culture keneen diine lañ soxla suñ culture liñ ci soxla dañ koy téyal suñ bopp kon loolu ñu bari amoon nañ ci njuumte bi sëñ bi ñëwee sos loolu nag ngir téye li nga xam ne mooy li am li nga xam ne moom moo moo baax wante li nga xam ne tamit moom lañ fi fekk te lu bees te am njëriñ mu mën ko boole ci loolu ñu ngi nuyu bu baax sëñ Cheikh Mbacke Seye moom itam euh, bi fii nag moo tax matière yëpp lañu fi jàng matière diine xam ngeen ne Dakar comme ni ko ni ñu ko waxee léegi am na faculté boo xam ne lu jëm ci science la ak technologie bu nekk yi lu jëm ci agriculture la bii ak mooy science religieuse fii sax amoon na jafe-jafe bu bare ndax xam ngeen ne fii biñ ko ubbi dafa mel ne moo doon cosaanle waaye moom lañ ubbi ndax. am na sax ñoo xam ne demoon nañ ba naan mais classe yu sax dañ leen koo jox ñu def ko ay classe nga xam ne xamuñu sax lu xew liñ fi ñàkk bari na lool ci xaalis te loolu lépp am dañ koo sax tojaat dañoo tojaat lu ci bari ndax li taxoon mu mujj mooy ku xam na ni fii ci Afrique amul mën na wax àddina bi sax néew na fi ay ay ay euh, faculté yoo xam ne dëgg la pays arabe yi xam ngeen dirasa islamique usul loolu ñu wax na ko mais benn tur woowu ci Afrique amul mën na sa wax ne amul foofu mu laaj Sénégal loolu kon day aajo Sénégal tamit état la état du caa gën da ngay jëf nag kaalawu soxla sëgg nga leen déedéet bu loolu état lépp lu muy def ci loo xam ne xam-xam la ak lu mu mën di doon daf koy segg xool ba xam ñu proposé loolu moo tax bi ñu tàmbalee ñu tàmbalee ci science tàmbalee ci technologie ba état bi gis ne lii kat lu wér la ñu soog noo ñu soog a dugg nag ci loolu moo tax fii moo mujj ndax jàngale diine lañ fi def jàngale diine bi sax li tax ñuy wax ne lu bees la ci mooy diplôme yi. jàngale diine boo xam ne diplôme état da koy nangu comme ni muy nangoo yu yu yu nasaraan yi ndax xam ngeen ne diplôme yu bare yu jóge ci pays arabe yi daan nañ ko wax waaye Sénégal du jàggi nit jëmmi diplôme bi la ñu doyadeel parce que diplôme ku ko am ko ne da nga jàng wante dafa am ay sart yoo xam ne moo tax état di ko nangu sart yooyu nag dafa am loo xam ne Sénégal da ko moom am ci loo xam ne Sénégal da ko seq ay réew. moo tax Sénégal mosul woon nangu état bokk ku ñëkk ak diplôme boo mën a am ci biti boo ñëwee fii dana xam ne diplôme la waaye nag pour mu dugal la ci biiram day xam day fekk mu day jafe ci moom ndax la koy def mooy sàrt yi mooy tax waaye nun fii ñu nekk di jànkonteeg loolu di di di di di nekk ci procédure boobu ba état Sénégal ba sàrt yi ci tër loolu yëpp muy CAMES muy nga xam ne diplôme bi fi am diplôme international comme yu yu toog yu nasaraan yi fi am rek la nga xam ne jëratul ñu di ko validé wala jëratul ñu di ko doon naan daf nekk diplôme kon loolu tamit loolu moo taxoon fii moo mujj ndax jàngu diine bu état nangoo noonu xëy na bariwul ci fenn waxuma laa ci Afrique loolu mën ngaa jàng diine ci lu bari ci ci pays yu nekk kon loolu moo taxoon mu yeex ba tax ñu xawoon koo yeex waaye yàlla def état bi nanga ko ñu ngi ba gën ba gouvernement Sénégal ci ci ci président de la République moom tam ak ministre de euh, l'enseignement li ci deseet nag mooy université bi li ko tax a jóg mooy euh, euh, yeesal walla yokk li nga xam ne moo fi nekkoon tey lu baax indi loo xam ne lu bees la te am njëriñ ñëw ñu pour loo xam ne lu kenn xamul lay doon euh, ndaxte li ko waral mooy biñ koy tàmbali ci 2005 xamoon nañ bu baax li jiitu ndax bari woon na ci xale yi ñoo xam ne amoon nañu seen baccalauréat demal seen bopp ñun bourse yi ñu daan am ci Azhar daawul bari te bourse yi tamit ci pays arabe yi lay dem te pays arabe yi ñëpp xam nañ ne ci dañ lay orienté ci euh, euh, théologie waaye mosuñu ci nangu seet lool nag ñu gis muy ay département yu bari benn bi Sénégal dana ci perte ay bourse yu dul jeex ñaareel bi la ñuy jàng tamit xale yi ak fi technologie toll ak fi science toll bu ñu leen yemalee ci jàng bii rek moo tax ñu ko ko mos diplôme boo a am da ngay nekk bu caaxaan kenn ko for da ngay nekk say pasteur mais soo bu dee arab la soo dikkee bu dee jàng la bu ñu dikkee ustaas rek lañ lay wax wala firikat wala baaraatikat te pourtant la nga xam leneen nga xam nga xam ko wala nga xam nga xam ci lu ko mais loolu lépp li ko def mooy ñàkk am ànd ak li nga xam ne mooy sart yi tax diplôme bi état bi nangu ko ndax bu lam ci moom mën na ko def waaye lam ci moomul sañu ko kon diplôme yi ñuy am fii diplôme international yoo xam ne moom yi ñuy am ci université Anta Diop ñooy ñooy yem bi loolu moo ko beneen bi mooy bari woon na ay xale yoo xam ne bu ñu génnee dem ci biti dañuy changé dañuy gaaw a soppeeku lool ndax euh, bu ñu commencé ñëw bëgg a nekk ay ay bëgg a jël culture jàmbur te foog ñu jaarale bañ a jaarale culture ak diine culture mooy nit ki ak la mu xam ak la mu la mu bari na sax ci lislaam ku ne xam nga ku jàng bu baax da nga xam ne loo xam ne dana la wóor ne lii moom diine mën na cee mën na cee war na ca taxawaat wante lu ci bari culture da ko jël dugal ba mu par léeg sax nga gis addis boo xam ne day farataa sax loo xam ne wóor na leen lii mënut nekk wante mënu parce que boo ne yonent bi mais boo xasee tudd yonent bi ku dul xam ne ku ne xam ne du wax boo xam ne wax bu waxu nit kuy orienté nit wante diine la parce que diine dafa nekk pas-pas te pas-pas ki ci ki ciy wax il faut moom sóoraale ki nga xam ne moom lay waxal ba bu ëllëgee ci biir la muy wax dana du ko du ko jaxase kon yonent bi mënul def erreur bi dem noonu Euh, bu ko defee ñu gis na nag xale yu ci bari buñ diine dañuy jël culture foofu luñ leen wax ci wàllu diine nit ki na kaalaw rek wala mu sol ay yëfam daal di ne ak bu baal boole ci làkk bu ko defee ñu ne kii mooy diine lu mu leen wax ci diine rek lu mu leen carrière ñu nangu ko ñu gis na loolu lépp perte la ci ñun parce que suñu niveau bu ñu egg waxuma sax nit ñu baax ñu fi nekk ci wàllu diine mais suñu niveau xel rek mën na dépassé na ñu baree bari ci loolu نعتذر يعني الاساتذه المصريه نعتذر السلام عليكم li ci des mooy diñ leen di firil ay téere ay ay ay alxuraan ak sunna ci façon boo xam ne nañ ko gisee rek lañ koy defee ci seen xalaatu bopp loo xam ne mën naa am extrémisme bokk ca wala terrorisme bi ñuy wax sax dañuy bokk ak ñi nga xam ne sax dañuy dañuy matériel da leen di ñor nga xam ne lépp lu leen xaa lu leen xaalis lu ñu leen dugal ci atal alal rek di leen ko jaral kon dafa mel ne am na ñoo xam ne bu ñu la dee jàngal diine dañuy njëkk a génne ci yow mooy si ay valeur ak valeur diine yi kon foofu du jànkaayu diine loolu moo tax ñu gis ne kon suñu xale yi ak li fi nekk ci li ñu am ci ay valeur war nañ koo téye ak suñu xam-xam ba tax na loolu moo taxoon ñu créé université looloo ko tax a jóg moo tax nag euh, euh, fii euh, université Ahmadou Bamba li mu def mooy mooy mooy may slogan mooy moom jamiatul islamiyatul ilmiya la maarifa xisbi xawmiya du et du université boo xam ne par parloo fi nekk ak bu sa ndaw ak seeg ay affaire yooyu amul loolu fii jàngukaay la pour xam-xam li fi nekk mooy ku fi ñëw te nangoo jàng am nga fi sa cëru bopp mais amul benn loo xam ne moo fi tax ñu naan leen fi kii bokk fële nga bokk yooyu amu fi loolu amul amul fii loolu moo tax ñu jéem a dindi barrière linguistique barrière langue bi mooy suñu réew yi dafa mel ne làkki français bi moo fi moo fi moo fi moo fi yaatu ci la ñuy liggéey ci la ñuy def dara d'accord kooku amuñu ci mën nañu ci sore wante ñun ñi nga xam ne dañuy xam kenn waruñu tënk ci benn làkk war nañu xam luñ ci mën a am ci ay làkk parce que euh, inaa jaam la am soxla dafa xabaar yi taaruf taaruf mënoo ko def ci koo xam ne ñëw ku na taxaw di xool sa morom kooku taxul ñuy wax taaruf mais taaruf mooy kenn ku ne mën a wax ak sa morom la mu am nga jël ko la la nga am it nga jox ko ko kooku nag fokk langue yi dafay dañ dañ li ci des ñu dindi barrière euh, confrérie yi li nga xam ne moom la fi tubaab yi wala noon yi l'islam yi dugal mooy kee tijaan la kee murid la kee xaadir la kee nangam ay ay polémique yoo xam ne doo mën a comprendre lan la te ñi nga xam ne ñoom lañ yaakaaroon ñu sos yooyu mosuñu xam loolu kenn ku ci nekk da nga daan seet sa moroom la mu am nga jël ko ci moom moo tax sax yéen xale yi lañ yaakaar ci barrière boobu parce que barrière bu bu dëgër la barrière bu du pas sax barrière mais dafa nekk poussière boo xam ne yow miy xool da ngay dem dem boo ko dee xool day ñuul a ñuul ba yow doo gis la ci ginnaaw ba nga te fekk poussière la rek booy laal sa loxo muy dem donc yéen xale yi nag yéen lañu sas boobu sas fexe leen ba bu leen nekk ci fu ñuy waxee di ba tijaat ba xaajal ba kenn ku ci nekk boo dem murit xamal ci tijaat yi dara boo dem xaajal boo dem nangam boo dem ku ci nekk nga xam loolu mooy li nga xam ne moo tax su ngeen ko defee ëllëg si biir yenn génération bi nga xam ne yéenay réglé ci problème bi nga xam ne moo mooy mooy parce que du problème wante faux problème la xam ne ndax ay caaxaan danañ ko jal jalal jalal jalal ba mu gën a niru dëgg sax dëgg te loolu mooy lu mel nii kon na ngeen gën a gën liggéey ci loolu yéen xale yi parce que bari nañuy wax loo xam ne boo jàngul loo ko mën a dindi ndax que lu romb fi ëpp loo làmmiñ ëpp laa wax bu fekkente ne ma ngay wax waaye yow mi xam benn baat képp mën nga ko caa wax ci diggante la la kilifa gee waxoon ka ca des kilifa ga ca wax képp boobu baat dana dana dana duutu am fu mu jëm mais bu fekkee ne amuloo benn argument aussi dafay jafe waxante rek la am na ñoo lay dàq wax waaye nag yéen da ngeen di jàng gëstu xam seen xam ku ci nekk fa mu nekk nag moo xam loolu nag nag loolu di ci li ci des it mooy lu jëm ethnie maanaam fii amul tukulóor amul séeréer amul wolof amul maajaabo ku fi xas nekk rek. kal gi nit ñi di def sax ku xas dugg ci université bi bu ko def teg sa morom parce que kal li ñu koy defee mooy ñaar ñu bokk ba noppi di waxam te wax bu rafet ngir jàmm mais fii bu ngeen ko xasee dugg nekkatu leen ñaar kenn ngeen kon jërëtu kal séeréer bi bu mu wax wolof bi ak ak bi ndax séeréer si nag dañoo xaw a ay ci wala tukulóor naa benn séeréer mu naan bu jàkk xatee ne ilimaa di pël génn xam nga loolu du yoon parce waaye loolu bu ñu ko dee nañ jën université bi ba noppi bu ñu demee ba ci biti nag waaye bu ñu xasee dugg université bi moom benn bi la amatul wax kii Banjaago la amatul ki Joola la amatul ki loolu la loolu tamit dañoo bëgg ngeen xam ëllëg kenn ku ci ne fexee xam sa waxi moroom kenn ku ne ngeen xam ne amul ñaari nit amul amul kal sax boo ko dee def jërëtu ko boo duggee parce que am benn nit ngeen benn nit jërël mu kalal ma boppam kon loolu dañ ci boobu boobu wax kon na ngeen fexe ba loolu yéen xale yi ngeen ngeen ngeen incarné incarné loolu euh, li ci des euh, euh, mooy fexe waaw mooy loolu li ci des te mooy programme bi fi jàngale tamit ñu ngi ko ci programme bi nga xam ne moom la mag ñi nekkoon mooy sunna sofia moo xaaj te turux yi fi nekk ni ma ko limee woon léegi tijaaniye xaajiriye ak muridiye ak laayeniye yi nga xam ne ñoom ñëpp ñoom ñoo ñu ko seqoon kenn ku ci nekk sunna bu sell nga doon doxee waaw moo tax nag boo xasee dugg fii ci université Ahmadou Bamba mayetuñ nag ku fi carrière leneen yooyu lañu wax ku fi bokk ci yooyu daal man nga ciy waaye nag indi fi lu xamul lu ne dina indil ay problèmes yoo xam ne xamuñu ko loolu moom ku fi nekk wax naa ko euh, ministre de l'enseignement supérieur ñun diggewuñu loolu parce que lii bi ñu koy def bëgg leen jëm ndaw yi rek la kon defuñu ko pour alal defuñu ko leneen mais tamit dañoo bëgg avenir ëllëg parce que gis nañu lu bare jàpp nañ ne ëllëg bu ngeen gaawul fexe ba jàng xam ba ñu dugg ci ay détails nit ku lay jël di la may xaalis di la reyloo nit ngay taal ay bomb yëfi jaaxaan yooyu ku ne xam na ne kooku du diine mais boo ko xamee ba tey mën nañ laa fexe ba nga egg ci ba dem bay di la gëm loolu te boo jàngee nag kenn du la mën a dugal ci loo xamul waaye bu ngeen jàngee loolu moo tax ñu bëgg loolu amu fi amu fi benn loo xam ne dafa def extrémisme wala ay ay kuréel wala waaso wala fii laa bokk wala fële laa bokk wala kër gi laa bokk kenn ku ne na nga respecté la nga xam ne moom nga nekk beral ko sa sa bopp dëgg la islam ku ne xam ne ne dafa permettre nit ki mu xalaat mat na ko euh, wasila li taxriiril fikri wante ak nit ki xam xam boppam xam keneen wante nag te itam loolu mooy mooy loolu ñun danañu respecté loolu nit ku ne xalaatam waaye nag ku ne itam am nga droit ne fii may lii laa fii ma nekk ak li ma def nii fii laa ci lii nii lañ koy doxe nii laay doxe kooku moom amees na ko Euh, li ci des nag xëy na balaa ñoo noppi mooy dañoo bëgg bu soobee yàlla euh, euh, ndax diine sax laa ikraha fi diin kon mënuñu soobe wante li ci des mooy bal dañoo bëgg fii mooy faculté science religieuse kulliyatu ulum ad-diniya al-insaniya waaye am nañ fu ñu am te nekk fi la ci ci soriwul noonu foo xam ne fu yaatu la fa lañ bëgg def rectorat ak ay faculté yu bari ndax xam ngeen ni faculté yi dañ ko tasaaree am na bu nekk ndar bu mag boo xam ne industrie lañ fa def ak tourisme religieux xëy na yéen xale yi bu ngeen waxtaanee ak professeurs yi ba juboo ci orientation yi xëy na bu ngeen demee ba egg ci loolu kenn ku ne dana tànn loolu ñoom ñoo ci mën a wax ak tànn ak yéen euh, muy Bambey muy Dakar muy muy muy muy muy muy Ndar ak fii ci Mesere kooku santé lañ fay def loolu lépp kon waaye teewul danañ def benn pose première pierre ci faculté yooyu ak rectorat bu mag boo xam ne ñu def foofu ci ba le 8 avril bu yàlla ci lañ koy ci lañ koy def loolu yëpp nag dañuy dañuy taxale rek nag amuñu benn financement boo jóge ci biti du tubaab du naar du sarakolito leneen dañuy lijjanti di jël liggéey nag xam waaye ndax waaye nag sàccuñu defuñu blanchiment aussi parce que mat a leeral amul kenn ku ñu jox xaalis pour nangam loolu loolu tamit dafa mat bàyyi xel euh, loolu danañ ko fa teg fii ki tamit xam nañ ni am na ñu jóge ci ay dëkk yu sori te xam ngeen ne egguñ woon ci def ay internet waaye danañ fi jéem a tabax ay dëkkukaay yoo xam ne dañ koy gratuite lay doon waaye nag dekk gaag yooyu nag yéen a koy lijjanti wante ndaxte am na ci ñu sori bu boobaa nag xëy na kii yéen amical comme que am ngeen amical da ngeen di seetante ci seen biir ñi nga xam ne xam ngeen ne sori nañu te tumaranke nañ fi parce que Touba loolu dana xaw a jafe moo tax ñu bëgg fee def ay kër waaye fële moom danañ fa def yooyu loolu bu boobaa nag kooku day nekk ci beneen condition euh, li ci des rek bala ñuy pare nu sant bu baax euh, euh, ni ma ko waxee woon sànq président ak ministre de l'enseignement supérieur Cheikh Omar ndaxte wax dëgg yàlla mbir mi dafa dafa bari lu ci nekk loo xam ne moo tax euh, lenn li doo ko mën a wax maa ngi doon wax sama ay kii ne leen ñoo ngi bind mémoire boo xam ne dañ ko tuddee bidaayatul mu wa mufaajaatun mutaaddida les débuts très difficiles et beaucoup de surprises beaucoup di surprises yooyu damay wax sax sama doom yi li leen bu ma màggatee bu fekkee dund naa xëy na bu leen bu ngeen ko dédicacé na ngeen ci tey ndax boobu wutul da ngeen da ngeen fi fekk ci yàq waaye li am solo mooy dañu gis ne lu baree baree bare dañ cee jàll yoo xam ne doo mën a comprendre ne sax lin nit mën na ko def te doo xam lu xew bu ko defee nag yooyu yëpp yéen xale yi ngeen bàyyi ko xel ngeen bàyyi xel fii du neex jàng la nuy itam lépp lu leen naqari programme yi ak pour lépp am ngeen seen kii wax leen ko rek ndax fii ñun amuñu problème benn dugul lépp luy suñu mooy ngeen jàng waaye bu leen boole bokk nag ci naan étudiant la ah dama dugg fii ngeen yooyu bu leen ci dugg lépp lu leen naqari ngeen xalaat ne war na cee dolli ndax kat ñun tam nag école bi wutuñu ci dara kon tamit duñ bëgg nag ku ñu yàqal te dañoo bëgg ngeen nekk ay modèle dañoo bëgg képp ku ci génn ci université bi ëllëg nga nekk koo xam ne exemple la doo sax defe naa ne ñi yore liggéey bi ñu ngi ci am na ci ay nangami nit yoo xam ne ku ci génn daanaka ñoom ñëpp yor nañu ay liggéey defe naa liste bi ak dañu wax jox Euh, lool daal mooy li ci am solo euh, kon ñu ngi leen di gërëm yéen ñëpp di gërëm kilifa yi di gërëm góor ñi jigéen ñi di xale yi dégg lool rek moo doon wax ji kon xëy na rek euh, si vous permettez vous pouvez faire venir le l'architecte et le le l'ingénieur voilà vous pouvez prendre quelques mots merci ñoom ñoo fi ñoo defar bi fii parce xam ngeen ne ñun bi ñu ko tàmbalee 2005 la woon architecture dafa yombul euh, liggéey ma liggéey ñi ngi gërëm nag ñi jàpp ci liggéey bépp gaase ñoom ak ak sunu benn ah maa ko tere woon waaye séeréer la rek waaye nduur la sax kooku waaye jàmbaar la lu nekk def na ko fi gis na ko fi kon ñi eggale liggéey bi ci ay diggante mu metti woon nga xam ni fii tabaxoon nañ ba defe ne egg na lépp dañ ko mujj toj fii dañ koo toj gis ngeen fële même classe yi sax dañu koo toj parce que ki ko doon def architecte bi ko doon def daf ko def ay dëkkukaay kuy tabax université man seetlu sax loolu def ko a ubbi rek lañ gis ne ndekk nga xam ne lépp dañ ko mujj toj ñoom bi ñu ñëwee nag ci la tàmbali liggéey bi liggéey bi egg fii nga xam ne li ñu fi perte képp tabax na université waaye loolu lépp bu fekkee yow mi koy def xaaroo ci woon bénéfice wala xaaroo ci woon yàlla rek tax yàlla moom yàquwul ci moom kon loolu waaye métti parce que loolu moo tax ñoom ñi bi ñëwee ñu taxaw ci liggéey bi muy muy muy muy mu Jean Louis ak ak Gabriel ak ñoom ñoo ay équipe lañu fële tamit defar nañ seen plan yi ba nga xam ne bu soobee yàlla euh, ñu danañ jéem a jublu ci rectorat bu mag bu ñuy def foofu ak ay logement Je dois remercier tout le monde à partir de le grand marabout Serima Moro Mbacké Murtada, toutes les autorités qui sont présentes en ce moment ici. Avant de tout, excusez-moi pour mon français, que c'est pas un français, c'est un italien. mais j'espère que c'est compréhensible. En tous cas, il y a Tcherno qui fait la traduction, non l'offre. Je pense que c'est préférable. nous, on est ici, comme je pense qu'il a dit euh, Sérim Amor, pour aider à utiliser des structures préexistantes pour l'université, pour faire un grand amphithéâtre, pour consentir plus facilement l'instruction dans la l'université. On a trouvé quelques petites difficultés parce que la structure était déjà réalisée au 30%, puis les fondations, les premiers 3 mètres. C'est pour ça que le bâtiment ne s'est pas parfaitement projeté, mais on a cherché au maximum d'utiliser la structure existante sans faire nouveau travail en plus, juste quelques fondations renforcées qui n'étaient pas prévues à l'origine, était une structure différente, à niveau habitatif, n'était pas une structure... Euh, réalisé pour un locaux public euh, très important comme ça. Mais heureusement, on est partiellement réussi dans euh, l'initiative. Merci à Gabriel, qui est l'entrepreneur qui m'a mis en contact euh, avec Céline. Merci à tous les techniciens qui l'ont collaboré avec nous, à les à l'ingénieur qui m'a fait les calculs de béton à tous les ouvrières, dans les plus importants à les plus petits, parce que tout le monde est important dans mon travail.

on a encore deux petits boilons de mètres carrés, un petit magasin. Alors avec tous les travaux, ils peuvent arriver sur les millions à peu Mais on a réalisé 4000 mètres cubes d'amphithéâtre, c'est pas petit. Bismillahirrahmanirrahim. ginnaaw bu ñu sante suñu borom subhanahu wa taala julli si yonentam yu tedd bi muhammad sallallahu alayhi wa ñoo ngi sant suñuy ñaari waajur di ñaanal xalif général des mourides sëñ Muntaxa Basiru Mbàkke yàlla na fi yàgg tëye di ñaanal président Maam Moor Mbàkke yàlla na fi yàgg tëye di ziar kilifa yi fi toog yépp di ziar le coordonnateur de l'université Cheikh Ahmadou Bamba monsieur Sankara di nuyu di beral nuyoo le corps professoral maanaam jàngalekat yi di le secretaire général le secrétaire de la commune de Touba Mosquée monsieur Papsa ak délégation bu ma àndal ak kullu délégation bu teew fii yépp ñu ngi lu seen teewaay du nuyu di berdel nuyu ndongo daara yi fi teew yépp di leen wax axlan wa saxlan dal leen ak jàmm fii si université Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké président Mamor sëñ Mamor maa ngi am mbégte cawarte ak pas-pas ñëw fii tey sa pegg pour procéder à l'inauguration de la rentrée universitaire de cette université ah université bi nag kuñ ko tuddee rek ku ko xamoon tamit dégg nga ko université Cheikh Ahmadou Bamba mu nekkoon ki nga xamante ni ki c'est le fondateur du mouridisme un Sénégalais bon teint amoon pas-pas lool si jàng xam-xam ak diine kon kooku bu ñu ko tuddee université war nañ ko tuddee université ah Sénégal sëñ bi foofu nga daanale sax foofu laa bëgg a tàmbali tuuti du réew bi nga xamante ni bi kii séeréer la kii tukulër la kii manjaago la kii joolaa la kii saraxul la ndaxte Sénégal fu mu jóge ci histoire tàbbali ci ay sëriñ Cheikh Oumar Foutiyou Tall Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké Mamadou Lamine Dramé ñu ñu ay sëriñ lañu dañoo dox ci diine bi ñii jihaat nañu xeex tubaab bi ñii seen mission beneen la woon Cheikh Ahmadou Bamba beneen mission beneen mission la nekkoon Lat Joor Ngoone Latiir Jóob Alburi Njaay Burba Jolof Aline Sitoé Diatta jigéen la Joolaan buur Seyd Kumba Ndofféne ñooñu yëpp ay buur la ñu ànd ak ay séeréer ñoo doon xeex ba tey jii donn gi nga xamante bi moom la ñu donn muy Sénégal devise mooy un peuple un but une foi un peuple un but une foi amul séeréer donc amul joolaa amul pël amul tukulóor amul manjaago benn peuple c'est le peuple sénégalais moom la leen sëriñ gi bëggoon a wax léegi ngeen nekk donc ci daara bi université nag daara bu ñuy sàkku xam-xam la daara bu ñuy tàggat ay kàndam Cheikh Ahmadou Bamba am na lu mu wax ci murit jàng ba ne ar yaru ba ne nër te xam-xam lumière leer na bool bu mu war a nekk béréb bu mu war a nekk dafa war a set bu ñu mën fay toog moo tax ñu am yaakaar ma ñëw fii tey si turu ministre de l'enseignement supérieur Cheikh Oumar Anne de la recherche et de l'innovation ñu orienté fi ay étudiants arabes fii si université bi donc am yaakaar la donc cette université est reconnue aujourd'hui lijaasa bu fiy tabbee bépp ndongo bu fi jëleen lijaasa rek na wóor ni lijaasa bopp mën na ko yóbbu fu fu sore njàngum arab admettre nañ ko sax léegi sa enam ñun ñi enam lañu ñu waaye léegi ku am kijaas arab wan mën nga dem bokk ji si concours ENAM bokk ci cadre yi nga xamante bi ñoom ñooy jiite Sénégal te si yéen ñi lañ ko yaakaar ëllëg yéen a yaakaaru Sénégal ñu fas yéene nag tàggat leen fi université bii yàlla bu yaakaar tas waaye nag am naa yaakaar ni yu may gis yeneen université yi ay ndongo xëy génn si mbedd bi di toj ay kaar ay ndongo xëy génn si tali bi di taal ay pneu ay ndongo xëy lakk sax seen seeni seen i du foofu la leen di xaar de Touba loolu amu yaakaar nañu ni yéen yéen ay nekk ji leadership won yeneen ndongo yi naka lay ndong bi comporté loolu nag dinaa si dinaa leen ñaax yéen ndongo yi am na benn taalibe Serigne Touba bu mag le plus grand taalibe Cheikh ah Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall grand taalibe du vénéré Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké paix et salut sur lui Il a dit, pour être un bon écolier, pour être un bon élève, un bon étudiant, même un bon apprenti, si vous voulez, un bon disciple, si vous voulez, il faut avoir cinq qualités. Duro, cinq qualités. La première, il faut avoir la docilité d'un cheval. La deuxième, il faut avoir l'endurance d'un âne qui ne se plaint jamais malgré la lourdeur du fardeau. La troisième qualité, il faut avoir la fidélité d'un chien à son maître. La quatrième qualité, la persévérance d'un chacal qui ne renonce jamais à sa proie. Et la cinquième qualité, enfin, il faut avoir la ruse d'un renard. macha allah kooku Cheikh Ibra Fall moo ko bind yàlla na yàlla yokk kon ñun soxlawuñu lu ñuy jéggaani ci ay fontaine effable mu ne su fekkee ni jàngkat ndongo ndongo daal bu fekkee bëgg namm na li muy jàng bënn na am juróomi na làmboo juróomi qualité benn bu jiitu mooy société fas fas nu muy nangoo borom rek xoolal mu fas ne amee doole waaye noonu la koy borom xale bu ndaw sax mën ko xëcc mu dem foofu la xaar si yéen de ñaareel ba mu ne da di am jikko ak ndëgërlaayu mbaam sëf lu la sa professeur sëf si si si xam-xam si coono nangu ko nga xam ne dafa bëgg si yow nga tekki ëllëg njàng neexul ñun nekkoon nañu ay. étudiant jàngoon nañu man j'ai fait l'université Cheikh Anta Diop jàng neexul ñetteel ba mu ne da am fidélité d'un chien xaj xamul ku mu boromam bu leen xaj bu leen xam xanaa seeni sëriñ bu leen yor fii di leen jàng topp leen leen rek beneen bi mooy la persévérance d'un chacal xam ngeen njàppaan bu fekkee mi ngi rëbb njanaaw bi nga dàq ko day dëppaat nga dàqaat ko day dëppaat xëy na kay jant bi bëgg kii mu commencé leer rek mu soog a dem waaye day topp di dëpp rek matt googu mu matt nga war na matt waaye matt su sàkku xam-xam exercice bii xaw ko du ma tëdd de du ma nelaw ndaxte comprendre ma ko su ma lekkee sax du sentir lu may lekk tant que mokk lu ma ko foofu lay ndongo di xaar waaw ñeenteel ba xam nga juróomeel ba taali bi nag dafay muus nag ñax étudiant dafay muus da ngay ñor ruse d'un renard xam nga renard euh, bàyyi ma bi nga xam ne bi la day si kii wu moom mooy représenté muus da ngay muus yooyu qualité moom la Cheikh Ibra Fall wax ni ku ko làmboo allah kulli aal li ngay jàng dina bënn moom laa leen doon wax ngeen góorgóorlu si la ndaxte monsieur le président Sénégal dafa toll si béréb bu ñu tudde sele ba yoon sele ba nag dafay doy wax ñu nekk population bi nga xamante ni bi ay ndaw ñoo fi ëpp plus de quatre-vingts soixante-quinze pour cent des Sénégalais ay ndaw lañu Eh, ñu nekk si jamono bi nga xamante ni bii man dama leen koy bari di tooñe sax génération WhatsApp ak génération Facebook ñoo ngi fees fii dell na génération WhatsApp génération WhatsApp ak génération Facebook waaye génération boobu lu muy tar tar tar am na li nga xam ne bu fekkee ne moom moo tàbbi si ndongo li kenn du ko mën a détourné mooy alxuraan diine kooku képp ki nga xam ne bi tàbbi na si xol ba pare ñu nàmpatal la si gisuma lu lay fëkk di la yóbbu feneen donc di yéen yéenay utiliser yooyu jumtukaay pour dox naka sa noonu du foofu la leen di xaar yéen xam-xam am na solo lool am na solo sunu benn baay Cheikh Hamidou Kane yàlla na yàlla may gudd fan ak wér moom moo bind benn téere bu ñu tuddee l'aventure ambiguë xëy na du ñàkk am seen ñu ko liir boobu am na fa benn pàcc si biir aventure ambiguë fu mu bindee baxte suñuy maam yi dañoo dajulu ko woon parce que man jàllo jàllo laa kan jàllo laa ñu ñu ne dañuy yebal xale yi école tubaab bi ñu nekk fa di di xulo ñii ñu ne xam ngeen luy dëgg yóbbu leen fa doomu jaan yi ñun suñuy doom bu duñu dem ngeen yóbbu leen si école bi waaye doomu jaam yi yóbbu leen si école tubaab bi déglu loolu lu baax lu may wax bu ñu demee def jotaay boobu toogaay googu waxtaan benn soxna su baax bu ñu tuddee la grande royale Sipa jóg taxaw mu ne leen déedéet du noonu de ñu ne ah hmm? waaw mu ne ah nañu nañu leen bàyyi ñoom ñëpp ñu dem lan la fi wax mu ne laissons-le laissons-les aller apprendre l'art de vaincre sans avoir raison merci beaucoup laissons-les aller apprendre l'art de vaincre sans avoir raison nañ leen bàyyi ñu dem jàngi xam-xam te am na benn sëriñ yaakaar naa ni sëriñ Abdul Lahat Mbacke radiyallahu anhu moo ne woon xam-xam xaw ma ko bokk si boo ko xoolee rek loolu la firndaal foofu rek kon góor góorgóorlu leen ñu ngi leen di féliciter di féliciter l'entrepreneur ak monsieur Gabriel ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñu tabaxal lu rafet yi c'est un bijou et que je pense qu'on en fera bon usage donc euh, vive l'université Cheikh Ahmadou Bamba Vive la ville sainte de Touba, vive le Sénégal. Je vous remercie. والصلاة والسلام على أشرف gannaaw bu ma sante yàlla ci bis bii mu may ma ma ci jataay bu rafet bii damay euh, euh, gërëmati euh, Sëriñ Mamoor Mbàkke gërëm yi sax dinaa ci dellu si incha allah waaye dama bëgg jëkk jéggat ñii ma duggee ñii eh, mujj ci ñi fi ñëw gënalu ma mukk dama war a nekk ci ñi nga xam ne ñi dañuy eh, gàttandu nit ñi fi ñëw waaye jaag bi xam na kañ lay jóg xam ngeen génn Dakar moom kenn xamatul mu mën ci mel maa ngi baalu àq bu baax a baax a baax eh, ci ci li nga xam ne bi tardé naa ko di nuyu suñu kilifa yi fi nekk yépp kilifa diine yi ak kilifa aada yi di nuyu sama collègue professeur yi ci faculté bi euh, euh, euh, te last but not least la wax ci anglais anglais dafa am phrase bu rafet bu ne last but not least maanaam ñi nga xam ne ñi ñoom lay mujj tudd taxul ñu gën ci tuuti ndax mën na sax am ne ñoom ñoo nekk ci centre bi kon boog last but not least maa ngi nuyu étudiants yi nga xam ni ñoom ñoo war a ñëw ci faculté bi ndax étudiants yooyu ñoom la ñu def muy centre euh, euh, faculté bi ñoom ñoo waral institut Al Azhar yi ñoom ñoo waral tey faculté bi nga xam ni bi euh, sëriñ Mamoor Ibnu Mursala tabax na ko may gërëmati sëriñ bi di la gërëmati ndax sëriñ Mamoor dafa ma boole ci ñi sëriñ ci ñi mu woo am lu mu leen cëral am lu mu leen dénk ci mission bi nga xam ne bi moom la def muy mission muy mission wu éducation bis bu ma toogee damay toujours sant yàlla li xelam jàppee mu wooma ca États-Unis ne woon kat euh, euh, bëggoon naa nga ñëw am loo xam ne li dinaa la ko dénk ci mission bi nga xam ne mooy mission wu euh, université Cheikh Amadou Bamba mu di sama mission ma am loo xam ne bëgg naa li ci lu ko ci dénk ma gërëm ko sant ko ci lu mu mënti euh, lu mu mënoon kii euh, dénk baax na waaye yàlla àtte mu jox ma honneur def ma président wu conseil scientifique université boobu rax ci doole bi ñu paree faculté bii euh, ñu ñu inauguré woon keroog muy faculté des sciences religieuses humanités et civilisation mu dénk ma ci responsabilité académique kon bokk responsabilité boobu moo tax mu mën wax ne maa ngi euh, euh, dalal euh, étudiants yi nga xam ni yi ñoom fi war a ñëw di fi jàng sama kàddu dootul mën a gudd waaye dama amoon loo ma xam ni façon naa ko yéene présenté may ñaan rek ci patience ma présenté loolu li may présenté mooy lan mooy lan la ëmb soo fabee faculté nga tuddee ko faculté des sciences religieuses des humanités et des civilisations loolu lan la ëmb soo déggee humanité mën nañu ne mooy base mooy mooy fondement euh, waaye itam mooy couronnement bu péda euh, projet pédagogique boo mënti am bi ñuy tabax institut Al-Azhar yi sëriñ bi àggalee ko léegi université Cheikh Ahmadou Bamba ak faculté bi mën nga ne faculté bi ci ñu mujj tabax la waaye ba tey ci fondement ba la ci ñu yi euh, nga xam ni moo taxawal béréb bi la soo ne euh, euh, fondement la yéen ñi dégg arab ngeen koy wax asaas mën nga ne ba tey itam mooy couronnement ba moo ko àggale mooy anjas ba kon bare na ay discipline yu ñu fiy jàngale xam ngeen ne institut Al Azhar yi ak université Cheikh Ahmadou Bamba jàngale na science agricole jàngale na science médicale jàngale na science mécanique danañ ci jàngale technologie dinañ ci jàngale communication ak yeneen waaye éducation soo ko déggee enseignement boo xam ne bi day motal nit ki def ko muy doomu aadama muy nit bu mot li ko matal noonu mooy finalité humaine bi finalité humaine ci éducation bu nekk ak science bu mënti nekk ak discipline bu nit ki mënti jàng mën nga ne discipline yëpp science humaine la dañuy séddale naan dafa am les science exactes walla les sciences dures euh, euh, wax ne dafa am les sciences humaines wax ne dafa am léegi les humanités waaye yooyu yëpp soo ko seetee ba seet ko mën nga ne bépp science war nañ ko tuddee science humaine parce que xam-xam li finalité am mooy mottali doomu aadama def ko muy doomu aadama bu euh, mot léegi loolu la ñu jublu ci faculté bi nga xam ne bi sëriñ bi dafa ne nañu ko tuddee boog euh, euh, faculté des sciences religieuses des humanités euh, des civilisations ndax lu li ma wax léegi rek mooy xam-xam boo ci mënti jublu civilisation humaine ngay tabax cité wu doomu aadama yi li nga xam ni ni arab moo ko tuddee madaniya di traduire li latin yi waxoon civitas yéen ñi dégg arab xam ngeen ne madaniya ci Medina la jógee rek mooy loo xam ne di euh, cité wu doomu aadama lay def léegi jàpp nga ne barabadi soo nekkul ci cité nit ñi tasaaroo nañu nekk ñu benn bennoo bi nga xam ni bi mooy indi innovation mooy indi éducation nga jàpp ni ci cité ci ville la mën a am moo tax nga ko civilisation humaine euh, bi gën a mat nga tuddee ko madaniya euh, soo ko waxee noonu ci arab même chose la ci yeneen làkk yi parce que soo déggee civilisation moo civilisation ci français ci boppam mi ngi jóge ci latin civitas te latin civitas civis mooy ba tey ville mooy ba tey cité kon bopp ni ñu tëggee madaniya ak ni ñu tëddee tëddee tëggee civilisation ñoo bokk ñu ñu leen tëggee ñoo bokk racine ñoo bokk euh, asl noonu la ko euh, euh, muqaddima u ibnu xaldun di waxe loolu moo tax sëriñ bi tànn tur yi nga xam ne bi tànn na ko euh, sëriñ bi euh, ñëw na euh, Columbia University ca New York ca États-Unis mu nga xam ne mooy université bi may jàngale sëriñ bi xam ngeen ne ku bare faral di tukki la tukkeen ñépp nag xëy na béréb yi mu ci gën a taamu ci su demee ba tukki mooy béréb yu mel na université yoo xam ne dañ koy jàngale mu gis ne université Columbia dañ fay jàngale loo xam ne li corps curriculum lañu ko tuddee soo déggee ñu ne corps curriculum mooy ci yi ngay jàngale yëpp daf ci am jàngale boo xam ne bi yaakaar nga ne fii la xolu jàngale ci boppam nekk maanaam léegi ku fa ñëw di fa jàng si ak spécialité bu ko mënti indi ñii étudiant la yoo xam ni dañu bëgg jàng astrophysique ñii étudiant la yoo xam ni bi ñu ñëwee affaire ingénieur moo leen tax a jóg ñii physique nucléaire moo leen tax a jóg ñii anglais moo leen tax a jóg ñii humanité moo leen tax a jóg waaye nga ne léegi yéen ñëpp ak discipline boo xam ne bi moo leen tax a jóg itam am na loo xam ne di mooy xolu jàngale boo xam ne foog ngeen xam ko donte du seen spécialité dama bëgg ci deuxième année wu képp ku dugg université Columbia nga def li ñuy wax corps curriculum jàng humanité te ci biir jàngum humanité yooyu lan dañu fab benn jàngale boo xam ne bi moom dañuy wax western civilisation civilisation wu monde occidental ne étudiant boo xam ne bi génn nga Columbia lii war nga ko xam ñu ne léegi loolu lan la ñu ne mbooleem livre yi nga xam ne yi mën nañu ne ci livre yooyu la ñu tabaxee civilisation occidentale soo gisee xalaatu civilisation occidentale am na nangam ci ay livre yoo xam ne yi livre yooyu ñoo gën a am importance ci seen jàngale donc loolu war nañu fa jàngal suñu étudiants yi loolu mooy war a nekk seen corps curriculaire xam nga su ma leen waxee loolu kon di ngeen xalaat ni ah kon def foofu danañ fa jàngale ku mel na Platon danañ fa jàngale ku na Aristote danañ fa jàngale ku na Machiavel danañ fa jàngale ku mel na Rousseau yooyu yëpp dëgg la parce que yooyu la ñu miin di ko booleeg occidentale waaye moo wax leen leen li nga fa jàngale itam la Bible xanaa ku ko ku ñu ko wax li nga ne ah waaw la Bible de bokk na ci li tabax civilisation occidentale waaye ca biir civilisation occidentale boobu danañ fa jàngal itam alxuraan maanaam professeur yi jox cours western civilisation à un moment donné dinañu fab au moins ñaar ci seeni cours daal dina expliquer étudiants yi lan mooy alxuraan ndax dañu bëgg euh, expliquer étudiants yi itam ay yeneen xalaatkat ci doone islaam boo xam ne bi ñooñu alxuraan dañu moo leen nourrir ñun parce que war nañu jàngale ku mel na Aboubacar ibnu Tufayn dinañ fa jàngale koo xam ne kii dafa mel na imam al Ghazali Abou dinañ fa jàngale koo xam ne kii euh, euh, mooy euh, Mouhamad ibnu Rushd yooyu yëpp dañu ko boolee ci civilisation occidentale ana ko war xam nga ñooñu pour ñun ay auteurs musulmans la. alxuraan islam ñii ma tudde ni muy ibnu Tufayl di al-Ghazali di di di ibnu Rushd ñii ñëpp ay philosophe musulman lañu waaye ci cours boobu ñu tuddee western civilisation civilisation occidentale dañu ne ñii ñëpp war nañ leen jàngale parce que ci civilisation occidentale lañu bokk soo xamee ibnu Tufayl Espagne la juddoo Espagne ci Europe la bokk effectivement mën nga ne civilisation occidentale soo jëlee ku mel ne Ibnu Rushd moom itam Espagne boobu al Andalus foofu la bokk soo jëlee ku mel ne Imam Ghazali Imam Ghazali effectivement ca Bagdad ca Nizamiya wu Bagdad da daan jàngale bokkul ak li nga naan Europe waaye gannaaw xalaatam moo nurir xalaatu ñi ma tudd mënuloo leen taqale foo jàngale Ibnu Tufayl war nga fa dëkk jàngale Abu Hamid al Ghazali foo jàngale ibnu rushd war nga fa jëkk jàngale imam abu hamid al ghazali noonu loolu mooy tuuru civilisation loolu mooy tuuru euh, humanité humanité du nga tëju du nga tëju ci li nga xam ne lii man lii laa keneen du loolu civilisation bu ñu tuddee civilisation occidentale ak ñun civilisation bi nga xam ne mooy suñu civilisation islamique li ñu duggalante kenn mënu leen taqale nga xam ne civilisation humaine moo am civilisation benn rek la Europe islam du loo xam ne li dafa ñëw ci Europe ci lu bees loo xam ne lii immigré yi ñoo ko fa indi islam dafa bokk ci deretu Espagne tudd naa léegi al Andalus loolu mooy euh, civilisation moo tax jàngale bu mel na civilisation wala humanité am solo ndax jàngale boobu dafay dellu ci reenu xam-xam xam nga di nga jàng nekk xale ñu dugal la ci classe sixième ba nga jàng terminal yaa ngi jàng ngay accumuler jàng ci mathématique jik ko accumuler di dajale di dajale moment bi nga tolloo nag ci fi nga xamee ni fii foofu ngay jàngee philosophie philosophie yi mu lay jàngal mooy nga dellu si waat seetaat li nga xam ni li xam nga ko ba pare nga poser ay question ci ak esprit critique ak esprit d'examen esprit critique ak esprit d'examen moom la faculté bu mel na faculté bii sëriñ bi taxawal muy faculté des civilisations des humanités et des sciences religieuses esprit boobu lay indi xam nga tudd naa ñi philosophie yi ma tudd léegi dañu ne Europe am na jamono boo xam ne bi dafa raw yeneen civilisation yi ndax esprit critique ndax esprit d'examen islam xam nañu loolu mbirum université ci islam ko yi jëkk ci université yi ñu yi ñu gën a ràññee bokk muy al azhar fi dixième siècle am na université yi ñu ngi développé en Europe dëgg dëgg dëgg dëgg après date yooyu ñu ngi nag am seen essor plein ak seen développement plein à partir du treizième siècle nee nañu nee nañu li indi retard relatif bu monde islamique par rapport ak monde occidental ci université ya nga koy gisee justement parce que su fekkee ne université ci ñun ci suñu civilisation islamique musulmane la jóge itam di tax à partir du treizième siècle mu am développement boo xam ni bu wutee na ñun suñu njàng mel na demeetul noonu njàng université yi ci Europe daal di développé nee nañu gaa mooy esprit critique euh, kenn du weddi loolu kenn du weddi loolu ndax effectivement am na jamono boo xamee ni bi ni ñu organiser njàngale bi ak ni ñu organiser science yi ci Europe ak ci monde islamique wutee na ndax sooy jàngale ay discipline yu bare da ngay toujours jàpp ni am na discipline boo xam ne bi mooy fondement moo téye bâtiment bi mu mel ne fondation yi nga tabax ba pare soog ci teg kër bi ñu ne léegi ci université européenne yi ban moo war a nekk ban disipline ban science ban xam-xam moo war a nekk fondation ñuy werante ndax théologie la war doon ilmul kalaam wala ndax philosophie la war a doon al falsafa ñu ni moy kalaam xëy na moom mooy servir falsafa ñu ne déedéet falsafa moom mooy servir ilmul kalaam waaye ba tey werante bi ci diggante ñaar ñooñu la ba nga xam ne bi à un moment donné jàpp nañu ni reenu science yi fondation yi mooy falsafa parce que dañu ne mal falsafa mooy développé ci nit ki seet loolu mooy développer esprit critique mooy développer esprit d'examen mooy indi mantek mantek bi dëgg logique bi dëgg ci falsafa boobu lay nekk kon mu mel na falsafa dafa gagné ci théologie soo seetee léegi daal le monde musulman ban lañu ne woon moom mooy science fondamentale science bi nga xam ni bi moom mooy fondation yi ñu teg ci njàmbale bi ñu ne le fiqh la fiqh jurisprudence kon mu mel na léegi fuqaha yi nga fab teg leen ci ñu jiitu ulama yëpp ulama yëpp war a topp léegi dépendre ci fiq fiq gaa kenn du di importance am ala kulli haal diine moom dafay reposer ci ci ci ci sax ci boppam waaye soo ko seetloo soo nee léegi fiq mooy fondation xam nga fiq bëtam daf ko retourner vers le passé parce que sooy def fiq yaa ngi seet yan moo doon précédent yi nga ne ah téere bi wax na lii kon boog nii la ñuy àttee wala boog ñi fi jiitu woon euh, fuqaha yi fi jiitu woon atte woon nañu kaa bu wutee bu mel nii nii la woon kon boog kaa bi nga xam ne présenté wu nii laa koy euh, euh, traité mu mel ne toujours fa fiq ADN am li ñu ko tabaxee mooy moo xamee ni fi di nga mën a xool sa cosaan di nga mën a xool sa gannaaw pour décision yi nga xam ni da nga koy jël tey alors que soo jëlee discipline u falsafa wala nga jël discipline u kalaam ay discipline la yu orienté vers le futur poids bi nga xam ne bi passé leste na leen loolu amuñu ko ñu ne nag foofu la wutee bi amee bi nga xamee ni itam université ci islam la soso développement plein et entier bi mu am ndax esprit critique te Europe la demee parce que ñoom Europe dañu seet direction wu falsafa xool vers le futur ñun ñu xool direction wu fiqh seet vers le passé xëy na explication bi sax nga dafa simple trop nit war na ko mën a compliquer waaye am na ci loo xam ni dëgg la liy dëgg nag bay dëgg mooy esprit critique kenn waral ñu ko ëppale suñu nee modernité ak université yaa ngi koy tabax ci esprit critique kenn ëppale wu ñu ci xam nga tudd naa léegi Al-Ghazali al jiitu na philosophe Descartes bi ñu naan mooy per modernité lool lool lool ci utiliser doute doute méthodique pour mën a trouver la vérité nga fab ne dinaa sikki sàkkal la xam ne lii yaakaaroon ne xam naa ko nga laaj sa bopp waa lii nga xam ne bi xam naa ko sax fan laa ko xamee xam nga alxasaali ba mu daan jàngalee ca Nizamiya wu Bagdad kenn du teg baat ci lu mu wax classe bu mu daan jàngale dina gën a fees lii tabaarkal la nga xam ne de daje fii moom ci boppam moo toog ne waaw fu ma nee nangam ñëpp ne waaw noonu laa kasaar waaye lii nga xam ne maa ngi leen koy wax man fan laa ko jëlee xam nga loolu ëppul loolu mooy esprit critique même esprit critique boobu la modernité européenne appliquée léegi loolu la sëriñ bi fas yéene delloo si ci faculté bi nga xam ne bi créé na wan leen ne su fekkee ni ñun indi nañu faculté boo xam ne bi dañu fay examiner d'une manière critique les sciences religieuses les humanités et les civilisations au pluriel suñu tradition lañu ko defee suñu héritage dañu jëli parce que esprit critique esprit scientifique kenn waruñu ko ëppale loolu la sëriñ bi namm ci faculté bii loolu moo tax mu léegi étudiants yi nga xam ni bees la ñu ñëw di entrer ci faculté bi loolu moo leen fi indi ci mission boobu nga xam ne bi sëriñ bi ci la ne ci ngeen bokk ma di leen ci ndokkeel ci loolu di leen wax ni euh, nii ma sëriñ bi wóoloo am lu ma dénk ci mbir mi danaa ci def sama kéemtulaayu kàttan lii ngeen xam ne bi di ngeen ko liggéey fii incha allah incha allah incha allah dinaa leen ci gunge lu ma mën suñu demee ba xam ne bi toll nañu ci ay enseignement yoo xam ni enseignement troisième cycle la fas naa yéene def ci sama loxo ci euh, euh, ndigalu sëriñ bi ak ñi nga xamee ni woo na ci ci ci ci mbir mi foofu laa bëggee tëjee waxtaan wi di jéggaloo ci nu ma ci jéggaloo rek ci li nga xam ne bi dugg naa ko duggum taat na fii di leen gërëm wasalaam alhamdulilah lazi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawna an hadana allah wa usalli wa usallimu ala man bu'isa rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala مضيفة هذه الاحتفالية فضيلة الشيخ معمر مبكي رئيس جامعة الشيخ أحمد بامبا وممثل في نفس الوقت لخليفة طائفة المريدية أصحاب المعالي والسعادة أصحاب الفضيلة العلماء الأجلاء أيها الحضور الكريم في غضون سنوات قليلة أصبحت جامعة الشيخ أحمد بامبا قبلة لجميع المتعطشين الذين يريدون نهل العلوم الدينية والعلوم الأخرى من ينابيعها الصافية والفضل في ذلك يعود إلى الجهود الجبارة التي بذلها وما زال يبذلها القائمون بأمر هذه الجامعة min xaysu albarnajatu wa taxtiitu wa tasyiir wa tadris bi qiyaadati raisiha almufadda alcheikh Mamour Mbacké ألقيت هذه الكلمة باللغة العربية وذلك لأعبر عن ارتياحي لزملائنا الذين أتوا من أقطار بعيدة لمؤازرة الشيخ في عمله وعدل منهم أن يسمحوا لي بأن أتمم خطابي باللغة التي يتخاطب بها السنغاليون عموما maa ngi nuyu ñëpp di nuyu ki fi taxawal nguur bi ginnaaw ma nuyee sëriñ Mamour Mbacke di nuyu mbooloo ñi fi nekk ñëpp sama xarit äh, Bachir ba muy ñëw ci tegginam dafa ne ma mbaa sama discours du gudd mën na ko bu la neexee nga guddal ko parce que yaakaar naa li may wax genn wàll yëpp danga ko nar a waxi te répétition baaxul booy waxante ñi nga xam ne dañuy xam ci dund euh, li may bëgg wax rek mooy euh, li nga xam ni moom a boo ak sëriñ bi dama nekkoon directeur général enseignement supérieur mu ñëw ma ñëw fa wax ma projet bi projet bi dama gisoon ne na man lay wax te li ba ci gis tamit comme ni ñu koy waxee rek dama gis sama kanam saxsan laa yam si mukki ban ala wajhihi bal yam si sawiyan wa huwa ala sirati mustaqim taxtiir bi clair lool sama bopp ma ne ah kii dama lay wax parce que ku demee nit man nga xam ne maa ngi def sama ngone Medina ñëpp xam nañ foofu kenn daa ko jàng sa waajur yi dugal ñu la école ñu dugal la arab école ba bu nawetee day taw sa kaw daw jàng yomb fa e, yàlla di def ba nga jóge far si jàng arab dem Maroc ñu dégg ne mu nga jàng mathématique ma nga jàngale mathématique université bu Rabat ñoo ne du ko jàngale Sénégal bu mujjee doon directeur général enseignement supérieur ba mu waxee ma dégg waxam ma ne mu ne li nekk ci Sankara nii du lu mu judduwaale dug génie bi loolu mu ngi nelaw ci képp koo xam ne yaa ngi jàng arab muy une énergie potentielle taata kaamina lu mu soxla wala ñu ko bàyyi ko ak hasard nga xam ne mënoon na yàqu parce que sëriñ na njigal mu ngi ma doon kere kere man am na loo xam ne waxoo ma ko parce que tamit ku dëkkoon Madina ñii dañuy foo ñu seetaan ku bëggoon a dem yàlla sama sëriñ maa koy sant di ko ñaanal yàlla fépp fu ñu dem yi xam na ko parce que mu dem jàpp sa loxo génne bu woon kooku sànq la donc loolu waruñu ko bàyyil ay nit loolu ma am kenn ku ci nekk ci jàngataab si mën na ko am mën na am sax lu ëpp lool foofu doole la bu nekk ci yaramam buy nelaw bu ñu war a yee yee boobu il faut am ñu ciy taxaw ma gis ne taxawaay boobu la wax ba wax de ma xam ne ah kii de man lay wax xëy na lii bu ma ko amoon teel sax coono yu bari du ma ko am yii xale jàng arab li mu wax léegi mën ngeen am lu ëpp loolu foofu ay ministères yu ci yéen ci yéen mais li ngeen soxla may kuy jàpp seen loxo doole ba nekk seen biir mu yee ko ba nga xam ne boobu dool di ngeen ko mën a utiliser jëriñ seen bopp jëriñ dëkk bi programme li ma ci neex dama koy wax ci benn ñetti exemple xëy na ci la ñuy a mën a déggee parce que détail bi yëpp Souleymane Bassir wax na ci ëpp dama mës a nekk Maroc buur bi am benn conseiller ñu naan ko benn suuda booba temps euh, Assane Gueye la woon kooku bind ko lettre na ko dama bëgg daal mag naa dama bëgg nga jéggal ma rek ma noppalu ko di retraite Assane Gueye tontu ko ci télévision ne ko ah, benn suuda de daf ma envoyé devant marocain yëpp daf ma bind lettre nga bëgg noppalu ko dama koy wax na ko du dem fenn parce que ku mel ni moom yàlla na yéex retraite am mooy ñu suul ko parce que mooy sama conseiller bi nga xam ne waxtu ma ko joxee boo bu année bi jeexee ba desoon sax ñaata fekk mu delloo ma ko te loolu dara may la ko lu doon jàngu diine bi jiitu ci sa yaram parce que da nga jàng ci kërub diine loolu doo ko jàng feneen parce que xam nga ne fifteen boo lekk suba di nga ko layoo bokkoo koo xam ne dafa naan indi yenn laax yaatu naa dunya fii la yëfi yëpp bokkoo kooku bu ma sonee am ci yow ci bare kan nga dem mu tontu ko ci kanamu malakin yëpp ñu koy dégg donc jàng yu mel ni bu amee xale bi jii diina jiitu ci moom te lu mën a am la maa ngi sama promotion la xam ne ay médecin lañu bu heure julli jotee ñu dem julli ji bu ñu war a jiite jiite ñu ñu doon faj sax ak ñu leen doon jàppale. mbirum miraas bu amee bu compliqué lu lool nekk ci massa yi jafe mën nañu ko defal seen bopp def naa ne loolu dañu ko soxla surtout li nga xam ne noonu la ñu toll ci ay ndim nekk fii ñu leen di sàggane tey bii bu fekk ne jàppale woon nañ leen lépp luy mbéy danañ ko doxal di leen yàqal seen diine affaire ay demee ni fi transport danañ ko doxal di leen yàqal seen diine centre recherche yi gën a rëy ci àddina bi mën nañ fa nekk di leen yàqal seen diine barkaati démb rek léegi gaañu na am na ko amoon prix Nobel ci chimie égyptien la ba muy gaañu yàggul prix équivalent prix Nobel mathématique am na ndaw su ko amoon moom it gaañu na di xale bu ndaw sax iranien la Iran lay jàngee jàngee na fa diine mu ngi mujj nekk États-Unis donc loolu da dul yàqal kenn kenn kenn sa njàng surtout mu nekk doole boo xam ne mu ngi seen yaram seen diina may na leen ko parce que ku tural liggéey da liggéey ngir yàlla ak yonante bi doo naxaate doo lekk xaalisu kenn te loolu la jara téye ba ma gisee mu wax ma loolu ci laa ne ah kii de dinaa jihaat ci wetam li may liggéey ci wetam dama ko tuddee jihaat di am mbégte bu rëy que suba bu ñu bind tur ñi nga xam ne ñoo lañ ko doon jàppale ñu bind suba tur cap ci kayar boobu loolu doy na ci man la ñeenteel bi yeneen am si la yi ma bëgg joxe mooy cour de Ménique bi Ibn Sina def naa ñun ñëpp dégg nañ ko philosophe philosophe la woon di nitu diine jàngoon médecine lool am na benn document mu sa si moom ñu ne Ibn Sina dafa amoon zawiyaam di fa jàmm yàlla daan jiite mais danaan liggéey tamit ci ay xam-xamu ay garab voilà donc garab yi donc ñu daan def ci affaire végétaux yi mais bu daan dem ci àll bi di wuti garab da daan def istixaar pourtant terewul de siw na Europe jël ci ay xam-xamam ba Maroc am na benn euh, hôpital bi gën a rëy moom lañ ko tuddee tubaab bi naan ko Avicenne mooy kii euh, naka la tudd kii Ibn Sina loolu mandarga la ne yore sa diine jàng ci arab du la defar dalay defar donc mun la yàqal dara ñetteel bi mooy ne tey jii. lu ñu tuddee loi de Newton mooy ki nga xam ne moo ñu moo ñu fàttali parce que bind ko moo ñu wax rek ne boo jëlee dara boo ko bàyyee suuf si da koy xëcc mu daanu ñu tuddee ko loi de Newton parce que Newton moo ci jëkk dem wax ñu naka lay demee waaye damay laajte tey bii loi ba boo nekkoon loi ñoxor est-ce que suuf si day mer sànni li mu yoroon yëpp ci kaw donc langue bi amatu dara lu ëpp solo mooy xam-xam bi ñu ci jàng. ñetteel bi Souleymane Bachir wax na ko lu demee ni kii yenn saa yi nga dégg parce que moom du ko wax man maa ko war a wax ñu naan képp ku jàng philosophie rek da ngay leer da ngay lekk yàlla mosut a am Europe bu yoree philosophie c'est parce que ñoom déjà ci jamono ñoom Ibn Sina ak ñoom Ibn Farabi dañu ko traduire ñoom Ibn Rushd Ibn Rushd philosophe bu rëy la wax bu rëy ba ci ngir bi ñu nekk muy al imam al Ashari mais imam Ashari ci mu utazalee la ñëpp xam ne xel la doon ba mu fa jógee ci daal la dem naka la tuuti yoon yoonam mais kenn gënu ko xam philosophie li bon mooy nga topp loo xam ne xamoo ko waaye ñoom dañ ko doon jàng pour défendre seen diine parce que booy waxante koo xam ne jàngul gëmul sa principe muy alxuraan ak sunna da ngay waxante moom ci xel ba daan ko boo xam ne ci xelam mënul la dara waaye boo dawee rek moo ne dangaa ñàkk doole maa ngi ci jël benn misaal ci koo xam ne dafa bindoon yaakaar naa ne moom la parce que booba temps xale bu ndaw laa ko ma koy biir mais nag texte bi mu ngi sama kaw dama yaakaar ne Gibran xarit Gibran moo ko bind di wax ñaari nit yu doon daje ba benn bés ñu daje taxaw nu yoonte kenn ki na ko yow nag ko tudd mu wax ko turam foo jëm fii bés bu nekk lan de na ko xanaa gis nga jàkk bi ngay doon ko ba ngay ñëw mën naa ah mën na ko maite mamba mën na ko yow nag foo jëm nii ba ma gis nga mën na ko gis nga église bu nekk fële mën na ko ah mën na ko man maa yore jàng boobu ñu commencé werante kii naan lislaam kii naan nangam kii naan nangam ba ñu ñor seen tànk dem seen yoon ñu togati ñaari semaine gisante wuñu ñetteel bi ku nekk ne ak ah, waaye saa waay mbaam neex la ma ko tee ma dem seeti ko ñu dajawaat ci même bërëb kii ne de man depuis boobu de maa ngi lay war gisuma la kii ne ko bés bu nekk maa ngi lay xamul xewam catholique ba dafa mujjee di dem ci jàkk ja tubbi na mais julli ba dafa mujjee dem ci église bi lu ko indi mooy ne mën nga nekk jullit sa pas-pas bu dëgëru lu lay yóbbu day yomb mën nga nekk ci église bi ko sa pas-pas bu dëgëru lu lay yóbbu yóbbu day yomb imam da ngay dëgër ci li nga nekk xam sa diine xam sa jamono te doo ragal nag nit wax nga ñëw jàkkoonteeg ma bon te du la fexe fi nga nekk doo fa jóge ma gis ne école bi yooyu muy jëm waayam sama mujj wax nag mooy préfet yow yaa fi représenté gouvernement bi xam naa ni gouvernement bi am na cofeel bu rëy ci Serigne Mamour te mu ngi koy jàppale te ñu koy jàppale xam naa ci dara parce que nekkoon naa directeur général bu enseignement supérieur boo gisee ñu koy jàppale tamit président république la parce que ak ministre moom sañut jox nit gëdd te fekkul amul ndogalam waaye bi ñu sañoon jàppale bi gën a dëgër déglu bi tamit. gën a yaatu parce que programme la yore boo xam ne def naa ne bu ñu ko ci toppee te eh, yu bare bare naroon na sànku muy projet muy am projet yu ko nuru ni nga xam ne dañuy jàng arab ñu ne leen du ñu ay intellectuel sànni leen fële te yore xam-xam-xam ne mën na ci jëriñ dëkk bi mu indi leen ci seen wàllu diine ñuy jàng am formation professionnelle ñu ngi ci mbay mi ñu ngi ci tourisme bi ñu ngi ci technologie bi suba yeneen dina ñëw bu ñu ko jàppalee def nañ yu bare bare bare pour dëkk bi gën a jëm kanam dina am parce que ñun ñoo ko waroon a xalaat moom moo xalaat ko dal na morom te loolu nag dama wax pour njëriñu dëkk bi la pour di waxtaan bi ni ñuy dégloonte Maroc ba nga xamee ne jamono dafa def rek moo fekkoon ma ñëw fa dafa def lycée ba nga xamee ne tubaab bi dem nañu jot seen bopp problème dafa créé parce que tubaab yi dañu fay def ay école espagnol yi côté noor bi. di jàngale tubaab mais marocain yi nga xam ne dañu am fierté ci seen dëkk am fierte ci seen diine te bëgguñu mu sànku ñoo doon créer daara yi fu ne fépp fu école tubaab nekk rek def na fa daara ndax seen diine bañ a dem mais ñu dem ba indépendance am dafa naa ne bàyyu Assane II Mohammed V moo woo ay boroom xam-xam waxtaan bu yaatu ne ah léegi nag war nañu waxtaan comme que daara yi dëgg la dañ daan jàngale diine waaye amoon na euh, naka la tuuti coloration wu résistance sibxatu muqawama parce que dañu doon résister contre ki fi ne nekkatu fi ki ñu moom nekkatu fi ñun dong la bu ñu continuer ci ñaar yi def ñu pont ci diggante ba ñee jàng tubaab li leen tubaab wax la la wax te ñee dañoo dellu ginnaaw ñay jàng arab dañ naan ni yéefari lañ fi nekkee te même famille bi lañu ëllëg bi xeex suñu biir lay doon te ñu jig nañ ci jóg ci la ñu créé woon ministère de l' enseignement originel wizara de taalim al asli ci la bénéficié wu defar contenu bi nga jàng sa diine di jàng mathématique di jàng physique di jàng biologie animale di jàng biologie végétale di jàng al islami ba ñu móol la ba nga baax terminal nga soog a jàng al falsafa nga xam ne du la yóbbul dara da nga koy jàng ka saxafa mais donc jàng ko sulu ñu jóge ko bu la neexee boole ci ay langue nag jàngal français ak anglais boo ci amul moyen doo jàll sama mbokk yi nga xam ne ñoo doon def sax sharia ñoo bëri mën a dégg français ci école bi parce que dañuy mujjee tudde ko lugatul inftitaax tuddewuñu ko luga ajnabiya parce que da nga koy ragal kon kuy jàngat dox nag da ngay jàngale bi woote ci diine jàng beneen làkk fekk ña fa nekk wax ak ñoom seen làkk ba dugal ci diine bi def na ko lu am solo la parce que bul xaar ñu jàng sa làkk ñëw ci yow donc nan lañ ko defee jóge ci wisaru taalimil asir ñëw nekk direction de l'enseignement originel direction ba tey direction ba dem na ñu harmoniser seen enseignement mën a former ay marocains yoo xam ne benn la ñuy doon am wóolante seen diggante xuloo du am seen diggante ñu mën a ànd na ñoom ñëpp ku def arabe ak ku def français ñu ànd liggéey seen dëkk loolu programme la koo xam ne ay nit dañ ci war a taxaw donc bu ko defee ma soxla woon ñu déglu ñi nga xam ne ñoo yore daara yi waxtaan ak ñoom ñoom ñu wax seen soxla ñee wax seeni soxla ñu àndandoo ñu jàppale leen loolu ñu dëkk bi donc moo ci nekk wasalaam wasalaam wasalaam wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahi rahmaani rahim rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wasalaatu wasalaamu ala ashrafil anbiya seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum wa rahmatullahi mbokki jullit yi ginnaaw bi sama ginnaaw bi ma nuyoo sëriñ maam Mor Mbacke ak mbooloo mi ci pare sama professeur yi ak am ji yi ak corps diplomatique bi euh, maa ngi fedd li sama kontaante ci ñëw fii parce que euh, sëñ Maam Mor Mbàkke li ma gën a booleeg moom ginnaaw mbokkoo jullit gi mooy pas-pasam parce que yàlla def na man liggéey naa ci affaire enseignement supérieur def naa ci ay at ma liggéey ci surtout enseignement supérieur privé mais li ma gën a frappé frappé ci moom mooy pas-pasam ak ni muy sellale liggéeyam parce que du ma leen nëbb ne pour nga ab xaalis enseignement supérieur lu yomb la créer sa école defal sa publicité mën nga ci am ay millions mais moom loolu de loolu tax koo jóg parce que boo xoolee ni muy def day jël alal di ko si dugal donc ku kuy jël sa alal bi ko ci dugal vraiment te benn seere laa ci mën a def mooy bi njëkkee xamante benn collaborateur mooy si digal saa moo ñëw sama bureau ñuy waxtaan comme que man professeur enseignement supérieur la professeur géologie la science de la terre donc ñuy waxtaan ci affaire enseignement supérieur bi ñu waxtaanee ñu sottante xalaat mu ne ah loolu dinaa ko yóbbu sëriñ bi yaakaaroon ne sëriñ bi man fekkee daf ma soxla daf may woo ma woowoon yàlla xam ne bu doon ma woon fii si Touba sax ma ñëw mais moom ci boppam ak woyofam moo ñëw sama bureau ñu waxtaan échanger ci boobu la ñu fase kóllëre euh, mbokk feneen leneen leneen feeñ donc ci loolu il fallait que ma seere ko moo tax moom xam-xam moo ko ñor li mu wax nii boo xoolee li mu waxee lépp c'est coréen dégg naa ko depuis deux ans bi ñu mujjee gisee mais xam-xam moom moo ko ñor te lépp ci réew xam-xam moo ko yore diine xam-xam moo ko yore koom xam-xam moo ko yore donc boo xoolee ci loolu euh, li ñuy wax al azar al azar lenn dul fësal xam-xam azar mooy béral lenn loo xam dafa nëbb woon nga génne ko te moom loolu la ci loolu laa gis mu koy def xam-xam nag dafa am xam-xamu religieux mooy xam-xamu diine mais ci xam-xamu diine am na xam-xamu science boo jëlee alxuraan ay ay presque ay téeméer téeméeri ay verset ay kii rek lay wax science lay wax science affaire géologie affaire biologie chimie physique et cetera loolu la donc moo tax ñu koy gën a encouragé ci tànk yi mu kii parce que diine moom du dëgër mu tànk amuloo loo xam ne da nga koy was di ko liggéey muy sa ñax yonent yi sallallahu alayhi wa sallam sax daf daan liggéey yonent yaa daawut da daan liggéey alayhi salaam donc nit ki il nga am looy liggéey pour sa diine mën a sell ci man sama gis-gis parce que euh, ci xam-xam sax boo xoolee fii ci Touba am na fi ay problème yoo xam ni xam-xam du xam-xamu xam-xamu xam-xamu sangu xam-xamu juri moo koy réglé mais technologie moo koy réglé benn problème bi bi ngeen gën a xam bu feeñ léegi mooy inondation yi ci Touba inondation yi bu na bu tawee bu bari di nga gis ay quartier yoo xam ne day inondé mais loolu boo xoolee ku leneen yomb daf leen di nax ay ay ay ay xam-xam yu wér ak gëstu bu wér ay cartographie yu wér moo leen moo ciy génne Touba donc pour pour dire que maa ngi encouragé taw yi pour ñu embrasser science yooyu parce que loolu ci jàmm yàlla la boo fekkoon fii ba Touba dootul inondé yow am nga tuyaabu jure donc lool xam-xam moo la koy may te loolu moom euh, xale yi fi jànge peut-être mën nañu dinañ xool ak sëriñ bi nan la ñu mën a mën a mën a kiiwe yooyu boo xoolee aussi problème mu assainissement nga gis problème mu ndox mi ñuy génne ni mu xóote dañ lañ koy génne ak na lañ ko traité ba mu neex ba nit ñi mën ko naan te duñ ci jël jàngoor kooku aussi beneen xam-xam la te yooyu yëpp nag ci jaamu yàlla loolu yëpp ci mouridisme la bokk il faut que nit xam ko dimension yi foo ñu kii ko euh, pour xam-xam rek ci euh, préfet wax na ko léegi mu ne sëriñ bi nee na da ngay da ngay euh, jàng ba ne ba ne ar nga yaru ba ne nër loolu mooy li borom xam yëpp d'accord parce que xam-xam dañ naan xam-xam lu kuy fiir moo la gën a fiir kuy fiir moo la gën a fiir parce que xam-xam da nga koy jox lu bari mu delloo lu tuuti ñun ñu siy jàng xam nañ ko da koy jox lu bari jël ci sa temps jël ci sa àddina gisoo mag ñi daan gàddaay yi def fu nekk ñu dem fa loolu xam-xam da koy jox lu bari mu delloo lu tuuti nga jox ko tuuti du la jox dara loolu nag moom xale yële laa laa laa laay waxal mooy étudiants yi il faut que bu leen bëgg dara bu leen gëm dara li préfet wax ay manifestation yooyu yëpp xamuloo xam-xam parce que xam-xam da koy jox ak xam pour nga mën ci génn bu fekkee ni bëgg ngeen bëgg ngeen nekk euh, te li ma mën a seere mooy sëñ bi moom am na confiance yu njiitu réew mi am na confiance yu ministre bi bu leen gisee ren ñu jox ko presque boo leen xoolee actualité privé bi presque état bi orienté wu ñëpp ci université publique lañ leen dugal am na ay jafe-jafe mais loolu bu ñu ko joxee 1000 étudiants ça veut que am na am nañ kóoluteem am nañ confiance am loolu nag moom def na li mu war def li ci des nag yéen étudiants yi yéen a yéen a yéen a kii yéen yéen a yéen war a góorgóorlu que confiance boobu ñu ci sëriñ bi ñu gën ko yokk parce que moom wóolu lañ ko wóolu lañ ko mais yéen yéen a war a góorgóorlu jàng def ay am ay résultats yu baax parce que jullit dafa war a dem rek jullit dëgg-dëgg domaine bi mu jël rek war na ci nekk champion muy science muy technologie muy yi fu mu muy électromécanique muy bay lu mu dem rek war na ci fii parce que dafay xam ni jaamu yàlla moo nekk ci li muy def euh, ci gàttal daal loolu laa bëggoon lu may wax parce que sama mag ñi professeur Mamadou Sangaré ak professeur Souleymane Bachir Diallo wax nañ presque lépp du ma guddal gàtt li may wax daal mooy gën a euh, ñaak étudiants yi pour ñu gën a góorgóorlu gën a takk seen digg xam ni xam-xam moom da nga koy da nga koy danga koy da nga koy tërbiye da nga koy tërbiye boo ko tërbiyaa boo ko tërbiyaa boo demee ba ci kanam euh, yàlla ñëwagul teraanga yoo xam ni euh, doo doo xam fu mu jógee wasalaam maa ngi baalu ci wax bi bëggoon naa mu gën rafet ci jéego bi salaamaaleykum alhamdulilahi alladi biizzatihi wa jalalihi tatimu salihat ahmaduhu hamda shakirin wa uthni alayhi bima huwa ahlu wasalaatu wasalaamu ala muallimi nnaas alxayra walilma waddin wa ala alihi wa sahbihi wattaabiciina lahum ila yawmi ddin amma baad faqad qaala allahu tabaraka wa taala fi muxkami tanzilih bismillahi irrahmani irrahim iqra bismi rabbika alladi xalaq xalaqa al insana min alaq iqra rabbuka al akram alladi allama bilqalam allama al insana ma lam yalam وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيأتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وقنوه فضيلة الشيخ ممر مكي مرتضى رئيس جامعة الشيخ أحمد بمبا وراعي مؤسسة الأزهر الإسلامية فضيلة الشيخ عبد الرحمن لو عميد الكلية مديري المراكز الجامعية بدكار وبمبي وسالي الدكاترة والضيوف الكرام زملاء الطلاب والطالبات أصحاب المعالي والسعادة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بمناسبة تدشين هذا المدرج للكلية وبمناسبة استقبال الطلبة الجدد أستأذنكم وأبدي بهذه الهمسات الشكر لمن أسدى معروفا والثناء لمن قدم خيرا يلوح في الأذهان وفي الخيال وفي كل حين اسمه المعلق بالذاكرة الشيخ ممر مكي مرتضى حفظه الله ورعاه لهذه الخدمة الجليلة التي لا يخاف فيها لومة لائم ولا يبتغي فيها إلا رضوان الله أيها الطلاب والطالبات مع انطلاقة جديدة لكليتنا في العام الدراسي الجامعي 2020 وباسم اتحاد الطلبة في الجامعة نرحب بكم بكل عناوين المحبة والإخاء وبكل العطور والدخون نتعطر سرورا وفرحا لانضمامكم إلى أسرة الكلية فالكلية مركز علم وتعلم لها معركة قومية أو حزبية وقبل أن تكون مكانا لتلقي العلم فهي مكان لتربية النفوس وتهذيب الأخلاق والطبائع إذا فادخلوها بسلام آمنين ونحن نتمنى لكم النجاح والتوفيق في دراستكم الجامعية أيها الطلاب والطالبات إن هذه السنة التمهيدية التي تضعون بها أقدامكم تتيح لكم الفرصة للدراسة والتحصيل والاستفادة قدر المستطاع من وقتكم سواء خصصتموه للدراسة أو للنشاط الطلابي فالأنشطة الطلابية بكل تنوعها الثقافية والرياضية والاجتماعية موجودة في الاتحاد وهي تثقل خبرات الطالب وتوسع مداركه ونعدكم أن نقدم لكم كل ما نستطيعه من عون لمواجهة وحل جميع الصعوبات والمشكلات التي قد تصادفكم داخل الكلية ختاما أيها الطلاب والطالبات ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحقق آمالنا وأن ييسر أمورنا وأن يطول أعمارنا وأن يصحح أبداننا وأن يهب لنا الرشد والتوفيق يا رب العالمين Euh, salaamaaleykum ñu tënk kàddu yi ci kàllame Kocc Barma ginnaaw biñ sante yàlla sant bu mat sëkk julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa mi nga xam ne moom moo xamle diine islaam ñu xam ne suñu borom bi subhanahu wa dafa wax ci alquran iqra bismi rabbika alladi xalaq xalaqa al insana min alaq iqra wa rabbuka al akram alladi allama bil qalam ma lam yaalam ñu tuxalee ci ku ñu wax abi said alxudari mu jëli ci yonent bi sallallahu alayhi wa mu wax ne aw nit dinañ leen dikkal di sàkku xam-xam buñ ñëwee saa soo leen gisee na ngeen leen dalal te yaatal leen lépp ngeen def ko daf koy teg ci ndénkaane yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sëriñ Mamoor Mbàkke Murtada kilifa ci université Cheikh Ahmadou Bamba ak lépp loo xam ne dafa aju ci muassasa al azhar al islamiya euh, kilifa jotaay bii ñu nekk muy daara ji muy kulliyatul ulum ad diniyati wal insaniyati wal xadarat euh, sëriñ Abdourahman Lo Euh, directeur yi nga xam ne ñoom ñoo bawoo ci yeneen bankaas yi am ci biir jaamiatu Cheikh Ahmad Bamba euh, ñi bawoo Dakar ñi bawoo Bambey ak ñi nga xam ne ñoom ñoo bawoo Saint-Louis mboolem docteur yi nga xam ne ñoom ñoo teew fii ak gan yu tedd yi sama mbokki étudiants yi ñu ñu fekk si ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir daara ji ak mbooleem képp koo xam ne maanaam teew nga fii ñu ngi lay nuyu sell di la nuyu nuyu islaam di la wax asalaamaaleykum wa rahmatullah ci xew-xew bii ñuy ubbi barab bii ñu nekk muy barab boo xam ne dañ fee war a jàngee ak itam suñ mboo étudiants yu bees yi nga xam ne ñoom lañ war a dalal ci maanaam daara ji ñu ngi leen di ñaan digal rek pour wax yëkkati ay kàddu cant yoo xam ne dafa bawoo ci étudiants yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk jëmale ko ci jëmm ji nga xam ne musta dañ mukk ci xelu étudiants yi waaye it musta dañ mukk ci xolu étudiants yi jëmm ji nga xamee ne ni dugg na ci histoire Sénégal ba faw ba ilaa yawmi diin jëmm jooju ñu koy wax sëñ Mamour Mbacke ci liggéey bi nga xamee ne ni bu am solo bii mu jëmmal te amul dara loo xamee ne ni njariñ ñi dana delluwaat ci moom waaye njariñ ñi dafay war lépp ci ñun ñi nga xam ne ñun ñooy étudiants yi liggéey bi nga xam ne sàkku ci lu dul ngërëmal yàlla subhanahu wa taala bu loolu weesoo sama mbokk étudiants yi ci at mu mi maanaam di di tàmbali ci turu euh, étudiants yi ñoo ngi leen di dalal yéen étudiants yu bees yi ci euh, dalal goo xam ne dafay lalu ci ak bëgg waaye dalal goo xam ne dafay lalu manam ci ak mbokkoo ñi am mbégte lool ci dal gi nga xam ne moom ngeen dal ci biir daara ju kawe ji pour jàng fi ñu leen di xamal ne la ne leen daara ji bërëbu sàkkuwaayu xam-xam la waaye nekkul bërëb boo xam ne dañ fee daje ngir ay intiment ak diini ya wala leneen lu bokk toog moom di xamal ne daara ji lépp am na fi comme ni ko sëñ bi doon junjee am na murit am na tijaan am na laayaan am na xaadir am na wahaabiya sax lépp am na fi waaye ñun yooyu yëpp yitteeluñu li ñuy yitteel rek maanaam moom mooy xam-xam moom moo ñu fi boole ñun ñëpp benn étiquette dañ ñu takkal muy ne dañuy sàkku xam-xam ginnaaw euh, ba mu nekkee loolu ba pare barab la boo xam ne dañ fii defaree jëmm waaye it dañ fiy defaree ay jikko kon ñoo ngi leen wax ne leen dal leen ci jàmm ak salaam ñoo ngi leen di mbébétal ak réussite totale maanaam ci seen jàng mu kawe ci jàngu universitaire sama mbokki étudiants yi di leen xamal ne année bu njëkk bii ngeen war a bokkee ci bi daara ji année bu am solo la ci yéen waaye année la boo xamee ne nii maanaam dina leen yombalal ngeen mën a jot mën a jariñu euh, ci seen kem kàttan euh, jàng euh, jariñu ci bu baax waaye it dina leen jariñ maanaam ci seen ay activité étudiant di leen xamal ne amicale bi nga xam ne moom moo fi nekk am na lu ñuy tuddee lajnatu thaqafiya waaye it am na lu ñuy tuddee lajnatu riyadiya waaye it am na lu ñuy tuddee al ijtimaaya lajnatu ijtimaaya yooyu yëpp am na fi su ngeen ñëwee mbooleem ansipaat yëpp dinañ ci taxaw dimbaleen ci ci jàppaleen ci ak yéen bu baax a baax a baax ñu leen xamoon ne it ne jàng nekkul ne li la ustaas bi di jox rek la li ngay jëlee ci maanaam entre leen murs waaye jàng bi li ngay defee sa biir kër ak muhaadaraat yi nga xam ne moom lañuy ñu amal ci ci lijaani yooyu yëpp maanaam am na fi kon bu leen am lu leen lu ngeen di tiit wala lu ngeen di ragal ñu ñoom ci jàmm ak salaam ak ci jàng moo xam ne jàng yoon la ak jëflante bu rafet entre ñun ak maanaam ñi nga xam ne ñoo ñooy kilifa ci liggéey bi te it ci turu étudiants yi ñoo ngi leen di dikk ne lépp loo xam ne ndimbal la maanaam euh, ñu ngi leen koy euh, euh, pare pour jàppale leen ci lépp loo xamee ne ni ay problème la wala ay ay pakk-pakk wala lu leen di gàllankoor moo xam ci ay wàllum dëkkuwaay la ak lu mu mënti doon rek ñu pare nañ pour taxawu leen ci incha allah ci turu étudiants yëpp kon ñuy wàcce foofu kàddu yi sama mbokk étudiants di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu réussiral suñu mbébét waaye mu jàppandal suñu mbir waaye mu guddal suñuy fan wéral suñuy cër may ñu ak njub ak tawfiq wassalaamu aleykum wa rahmatullah wajaal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawir wa habbi arshida mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu ci nuyu bi ñu suñu borom tànn di asalaamaaleykum di tàmbalee nuyoo yi suñu kilifa sëriñ Mamour Mbacke waaye di beral nuyoo it ku mel ni professeur Souleymane Bassir ak professeur Sangaré leen wax ne dégg nañ enseignement yi am na solo it te daañu ko jëfe ni ko kilifa bu baax bi waxee rek xataay waxtu bee tax waaye ni ngeen ko xamee buñ fi taxawee comme étudiant sortant bu université Cheikh Ahmadou Bamba bi féeti Dakar ci fàttali université la boo xam ne moom day yëngu ci science de l'ingénieur ci filière comme électromécanique électrotechnique nga xam ne les formé pour un métier ci lu am solo waaye di former ci lu mel ni informatique ak wàllu gestion ñu informatique de gestion am lu mel ni secrétariat bureautique kon ñun ñii di wax ak yéen fa génne waaye bañ ca noppee it di bokk ci concours yi nga xam ne état bi koy organisé moo xam arabisant la moo xam francisant comme ni ñu koy ñu bokkoon ci suñ borom defoon tawféex bañ bokkoon ci ñoo ko jàll ba duggoon ci école bi ñuy wax euh, centre de formation bi ñuy wax Sénégal Japon fii ci foire doon fa def betes en électromécanique di science de l'ingénieur ba bokkoon maa fa nekkoon majeur sax ci seede kon lépp day jublu rek arabisant moom baat la boo xam ne dañ ko accordé rek du jubluwaay bi sax laa la faxra waaye lañuy seede rek bu ko defee ñi nga xam ne yéen ay étudiant ngeen teew ngeen xam ne li ngeen woon yi dëgg la ndax dafa baax ci waxtaan ngay def le témoignage parfait comme ni koy waxee ci baatu nasaraan bi ñu jógee ci loolu it ah, ñu jotoon nañu dugg ci entreprise liggéey dinaa ci ñëwaat waaye tomboon nag état bi organisé concours ngir former ay jàngalekat pour enseignement technique ci loolu suñu borom bokk ci concours boobu bu ñu ko defee yaakaar naa ñoo ci nekkoon major lépp ngir firndeel ne li ñu may sàkku ci ma muy indi ay kàddu seene ndax ni ma ko waxee rek bu dee la nekk ay sortant nekk ay doomu asar man ba muy yóbbu asal may jàng sax fàttali ko dama faa jàng ma ta génn doo génn jàngi kon yaakaar na mën naa ci mel ay ay kàddu yëg-yëg ak soññi ak fàttali euh, li ci nekk mooy damaa gis benn bayit bu nekk ci mawaay bu naawee sëriñ bind ko muy xat fàkk kat la xat bas fat la su ma laajoon yëg-yëg bi nga xam ne am naa ko ci Al Azhar rawatina jamono ji ma tollee fii ngeen toll muy am bac nekk xale bu ndaw ñaari option nga amoon ci fàttali soit mooy nga jàngale bi wala nga tudd bourse jàng xale laa woon suñu maa dugg ci classe bay jàngale nanguñ woon bàyyi ma ñibbi ma génn jàng si kon xat fakka kab laa mooy ñëw mooy daal dañoo amoon ñu tënk ñu jégg sëriñ bi nag foofu la ñu dimbalee mooy créé école bi di Hissène Lazare ñu xat fakka kab laa euh, ci ginnaaw juróom juróomi at ci ginnaaw mbaa juróom-benn at ku ma waxoon ne bis dina ñëw ba nga laaj benn kanima benn phrase ak France bu jub duma ko gëm dama naa yow da ngay gént waaye dañoo xamut bokkoon naa te ñu doon wax kuréel naan leen bu ngeen mënoon dimbali di ko wax ci olof bu ko defee ñu mën a comprendre ne li ci sëriñ waxoon rek moo ci nekk yitte moom dina tax loo war a am ci fukki at nga ko ci benn at loolu rek mooy jumtukaay te baax nag li ma wax exemple laa jël ci moom waaye ñee toog ne su ma jëlee misaal kee ne toog aan bi ñuy bind programme bi nga xam ne ba état bi nga xam ne ci xalaatu sëriñ bi la juddoo ba état mën a jël initiative def ko ba ñuy dox seen programme mathématique bi kee ne yaakaar na moo ko bind te loolu grâce à école bi ma ko kee toog ci wetam mu di si la fii nii bu fi jógee war naa dem jamono am na benn projet bu mu gagné foofu te loolu c'est grâce aussi à la vision de sëñ Mamadou Mbacké mën naa ko fi lim di fépp boo demee dans les plus grandes entreprises Sénégal fii bu di Sénélec ñu Solowa ñu Sénico ñu nga ko di ndey dafa yàgg foo dem rek di nga fekk koo xam ne kat Arabes Unis ko tuddee te mu fay nekk kon yaakaar naa loolu ñu sante sëriñ bi la waaye ci vision bi yooyu doo ko taxawal école bi muy objectif premier am ñu former des imams ingénieurs c'est important euh, dinañ faral di wax de même vision politique sax soo bëggee defar dëkk en termes de ressources humaines il faut nga dellusiwaat ci nit ñi dellusiwaat ci nit mooy def parce que nit mooy changer système loolu yaakaar nañu ñëpp am nañ ci léegi bu indee idéologie imam ingénieur nag c'est important et ça c'est à appuyer aussi ginnaaw ingénieur boobu nag ci loolu am na ñoo xam ne ñoom bu ñu jógee ci vision boobu lañ am ñoo xam ne fii la ñu France te ku ñu waxoon ne arabisant doo ko gëm France ak nekk jàng dañu si école ingénieur yu gën am na ñoo xam ne moo fi am na ñu am nañu continuer seen seen jàng kon ay kàddu seere la wax rek nga xam ne dañ leen di wax ne lii ngeen xam ne moo leen woo dëgg la li ngeen xam ne moo leen wooy amul leen ci jom mu ngi aju seen yitte rek amoon nañu yéene loolu nag partage ak yéen ñu ko mën a tuddee kàddu soññe baa waxtaan ak fàttali ci xam-xam waaye yaakaar naa wax ci ginnaaw bu mel professeur Souleymane Bassel Diagne ak ci toog yaakaar naa du jaadu suñu kon daal di suñu borom doon wax yéen fii rek kazaalika naqussu alayka min naba'il rusul sa sabit bi fu'aadak loolu la fi dëgëral leen ba xam ne li ñu nekk dëgg la waaye nag neen kon la yitte ju ma sëkk ndax faral naa koy wax ci jotaay yu nii nit sa engagement danga koy honoré vous avez fait le choix ngeen jàng fi ne ku ci yéen ku ci toll ci yéen ñi bu ko neexoon defe leneen kon bu ngeen jëlee choix pour jàng dañ koy war a honoré honoré bi nag mooy ngeen def ci yitte ju ma sëkk yitte ju ma sëkk képp kuy sonn ci wàllu xam-xam rek ci yitte lay woote démb rek maa ngi fàttali bu récemment doon lire benn livre muy borom xam-xam bu ñu tuddee Esteban Covey doon ci wax juróom-ñaari jikko yi nga xam ne les personnes les plus efficaces dañ koy am toujours waaye liñ ci jiital bokk na ci être proactif savoir à s'adapter à toute situation boole woon nit tamit yitte kon li dul sibaar ne yitte daal mënul ñàkk ci dara da eh, xanaa foo lay tëjee tey ñun yi daf ñoo am loo xam ne ñu kaa tuumaal bu ñu nee la arabisant rek boo xoolee li ñu leen njëkk laaj mooy bu ko defee sama classe bi tàmbali xaaral laa nangam nangam bañ ci yeex am na solo mooy diine waaye di nga vision boobu ñoo ko war a weesal suñu bopp te weesalu ko suñu bopp gi nag yoo xam ne dañ koy propagande waaye dañ koy jëfe ba ñëpp teg seen bët te dama xam ne ñuy wax dëgg la fi ma nekk tey muy science et technique industrielle fële CNCF si université Cheikh dafa am bis am ku ñuy waxtaan mu ne ma diw ak diw ak diw nee bu ñu seen doom dañ leen di jàng arab ba noppi ñu doo ko jàng français ne ma loolu nag li ko waral mooy yow lañ gis ndax nee nañ dangaa jàng azar ba am ba daal di tourné te xam ne li muy nekk yaa ngi de l'administration de l'université Cheikh Ahmadou Bamba chers professeurs chers étudiants chers invités veuillez recevoir mes salutations les plus sincères mais aussi les plus honorables à notre guide spirituel et fondateur de l'université Cheikh Ahmadou Bamba du Sénégal monsieur Serigne Mame Mor Mbacké C'est avec un réel plaisir que je prends la parole au nom de mes camarades étudiants qui ont fait confiance en ma modeste personne vous souhaitez la bienvenue au nouveau bachelier. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Chers invités, auparavant, l'enseignement arabe n'avait comme débouché à savoir que l'enseignement islamique ou l'immigration vers les pays arabes. Mais aujourd'hui, grâce à une belle innovation de Serigne Mamoun Mbacké Mourtada notamment la création la l'université Cheikh Ahmadou Bamba. Nous étudiants en langue arabe, nous avons la même chance, voire les mêmes opportunités que les autres étudiants du supérieur. On peut même se permettre de dire qu'on a l'endroit du soir. Que ce soit l'agriculture, l'élevage, l'informatique, l'industrie, etc. Tant de secteurs auxquels nous pouvons prétendre aujourd'hui, alors oui, nous avons l'embarras du soir. Et pour cela, chers assistants, je vous demande un maximum d'applaudissements pour ce grand don. Aujourd'hui, grâce à la formation professionnelle de qualité que nous avons acquise à l'ICAP de Bambay, nous gagnons notre vie, Alhamdulillah, ainsi que nous participons au développement économique de notre pays. Car qui parle de parle d'agriculture. Et je crois que nous sommes sur la bonne voie, machallah. Et pour ne pas monopoliser la carrossière nouveau bachelier, je vais terminer par des conseils. Oui, on se permet de vous en donner, moi et mes camarades, moi moi et, de mes camarades, de par l'expérience que nous avons eue, mais pas parce que connaît fort. Mais juste vous dire, soyez armés de courage, de volonté et surtout de la passion de réussir. Ça ne sera pas facile au début de vous familiariser à la langue française. Mais dites-vous que vous êtes entre de bonnes mains car vous avez des professeurs qui sauront se mettre à votre niveau pour bien vous accompagner. Soyez donc les bienvenus à la famille universitaire de Bamba. pour bañ a guddal rek li fi mbokk yi wax rek la waxaat ñun ñii di wax ak yéen tey Bambey lañ nekkoon noonu def formation man may jigéen tey ba may ñëw Bambey Dakar la nekk Dakar laa juddoo yaroo ko màggee fa mosuma xam luy suufu mbay musuma xam luy mbay tey bu ma demee tey ba man a gérer exploitation wala tey nit mën a taxaw wooma ne ma lii laa soxla ci sama tool wala ban façon suuf tey laa mën a bayee wala tey man temps de pied exemple tey temps de garab laa soxla sama biir tool ñaata laa war a utiliser ci semence wala ñaata laa war a utiliser ci engrais tey bu ma demee ñemee taxaw ba taxaw nit ki di ko wax grâce à l'université Cheikh Ahmadou Bamba tey moom moo ko te loolu nekkul xëy na man damay ñëw xaw ma dara xaw ma suuf xaw ma ndox xaw ma dara xàmmewu ma sax tey garabu kaanislaat nu muy mel dama daan jëndi marché ba rek ñëw tey su ma demee ba man koo xool feebar dal ko mu ne lii moo ko dal lii moo koy faj université Ahmadou Bamba tey moom man ko man des fois nag tey dangay wax mbay koo xam ne tey ci àll ba lu juddoo tey exemple am suufa am ndox mun a mbay jarul jàng samay waaju daan nañ ko def déedéet yow say waajur daan nañ ko def mais façon bi ngeen naan bayee kenn waxul bon na de mais tey boo ñëwee ba jàng ba xam tey lan mooy agriculture tey ñu jàngal la li au fond de l' agriculture lan la tey boo demee méthode ba ngeen daan def ak ba ngay andi di ngeen wute yéen na ngeen daan defee ndax si ñun am na ci koo xamante ne ba muy ñëw Bambey am na suuf am na ndox xam na nu ñuy bayee gëmul woon lan mooy mais tey ba mu génnee université Cheikh Ahmadou Bamba bi nekk Bambey tey moom mu ngi gérer toolam la mu daan fere dépense moyen cher na la muy gagné ëpp na chaque semaine mu ci marché bi tey di gagné viande di yóbbu ay produits tey di ko yóbbu tey bi ñu wax agriculture dong ndax Bambey tey jàngal dañu élevage su ñun ñi ma àndal ñu toog fi am na suñoo xamante ne tey. ñu ci biir entreprise yi nga xam ne ak élevage la ñuy def ñeen ñi nekk ci agriculture tey ñoo ngi ciy gagné seen vie tey lu ñu ko may tey formation bu ñu def te tey bu ñu neexoon ñu dañuy defi concours dem jàngale baax na bonul def ndax nit ñaa ngi ciy gagné seen vie mais daf ñu permettre ku bëggul tey dem jàngale ji nga am beneen métier boo defi nga choisir ko pour ëllëg nga bokk ci ñi mën a réussir sa dëkk tey kon nag ñu ngi sant Serigne Mamour ak ñi mu àndal ak nga ñu nekkaloon Bambey formé ñu encadré ñu tey ba ñu agsi fii ñu agsi ba ñuy ñëw dégguñu français mënuñu lire xamuñu dara mais année préparatoire tey ba ñu defaraat permettre nañu tey fu suñu morom ñi jàng français taxaw déposer seen CV ñun tey ñu bind CV déposer ko te ñu waxante dëgg arabisant xamul woon luy CV tey ba koy déposer tey nag boo defee sa formation nga ne xaama déposer seen def fa stage damay riisal sama CV kon tey grâce à formation bi nga def tey moom moo la ko may kon nag li ma leen di ñaan ñi nga xamante ne yéen a ñëw yéen muy góor muy jigéen bu kenn wax ne man jigéen laa duma def agriculture déedéet man sama promotion ba ñuy ñëw première fois man dong maa ci nekkoon jigéen mais pourtant am na ñu ma ñu nekk te ba ma nekkee jàkkaarloog samay moroom góor yóbbuluñ ma dara trois ans ya ma def Bambey maa nekk major sama classe te teewul tey maa ngi génn tey di gagné sama vie ba may doyoo démarré maa ngi sëy yor naa sama njaboot sama biir kër laa def benn exploitation piment di ko gérer terewumaa liggéey sama liggéeyu kër terewumaa dem liggéey sama exploitation oignon ba ma yor saa yu ma xëyee maa sama kaana boobu di ko roofe maa ngi ci gagné sama ji kon nag ngeen doolee gëm ak góorgóorlu dara yomb tay képp ku taxaw fii di wax fa mu agsi nekkul xëy nelaw ba 10 heures dem jàngi moo ko yóbbee nekkul profam wax mu tontu ko moo ko yóbbee nekkul ku wax mu xel la moo ko yóbbee képp ku àgg fi nga àgg dangaa ñafe góorgóorlu am volonté ak courage moo tax nga àgg foofu nga àgg nit nag pour nga réussir pour nga jëriñ dara ci dëkk bi ki fi taxaw léegi wax na yéen ñëpp ngeen kontaan ku nekk ñee ko mais xëyul xëy tey doon doon bu leen laajoon tay fu mu jaar ak la mu daj pour àgg foofu tey kon dina leen gën a yomb jàng bi lu mu métti métti ngeen góorgóorlu lu mu métti métti ngeen muñ lu la manti def rek xamal na yow yaa soxla yow laa bëgg ka lay am na li mu am ba pare. moo ngi gañe fii am kon nag yow mii di ndaw tey nekk ëllëg damaa war a taxaw jëriñ a mën a gëm lépp muñ ko góorgóorlu ko ba àgg fii nga àgg nag ngeen gën a góorgóorlu ndax mën naa mën naa ne naa ne yéen ñii ñëw Bambey tey yéen ñu ëpp sens ndax ñun bañ fay door a ñëw buñ daan def bu ñu ko mais tey yéen alhamdulilah ñëw am ngeen teen bu pare am ngeen machine bu leen génneel ndox mi am ngeen i butaal bi du ngeen gardé arrosoir di roose te ñu ne ñaan gardé arrosoir di ko roose pour def suñuy pratique kon nag yéen tey alhamdulilah laa leen taxaw ngeen gën a góorgóorlu muy sama mbokk jigéen bi bu leen ko kenn yóbbu bu ngeen nekkee si école bu leen jàpp ne français dafa métti arabe laa jàng ba ma tool fii man ba ma juddoo ba léegi arabe laa jàng ba mais année préparatoire lañ ma defal ma concentré aussi gëm ci sama bopp nag xam ne la jàng mayo du la ko xam bàyyi kër ndey bàyyi kër bàyyi métti na trop mais dara bu la tax a jóg wanal say waajur lii moo ma tax a jóg lii laa bëgg ba ëllëg ñoom fu ñu te ñun dañoo war a wane un bon exemple ndax ki jël alalam jël lépp pourtant sëñ bi tey bu ko neexoo mu tëdd këram tëdd ne man sëriñ laa doomu sëriñ laa doomu kilifa laa jëriñoo alalam mais def ko loolu yëpp def ko def ngir ñun jeune arabisant nga xamante ne amuñu woon gëdd si dëkk bi amuñu woon baat si dëkk bi mu jël lépp investir ko ndax ñun ñuy tey kon ëllëg tey fu ñu taxaw ne kii élément UCAB dafa war a nekk royukaay war a nekk référence dégg rek xelam day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 ونبيه وعلى آله وصحبه وأصلى خديمه وأمته وسلم تسليما الصالح الفضلاء والسعماء الكرام والضيوف العظام الحضور الأعزاء الطلبة الجدد أهل التربية والتعليم مرحبا بكم على حضوركم هذه المناسبة في هذه البلدة دار العليم الخبير التي أسسها سيف أحمد بمبا هذه البلدة احتضنت المدرسة الأولى للطريقة المريدية رسم الشيخ أحمد بمبا المنهج الجديد ودرب عليه رجالا مثل الشيخ الحاج بك بوسو وشقيقه الأكبر الشيخ مامور جار وأخيه الأصغر مام كرم بك ومريده الشيخ عبد الرحمن لو وغيرهم وأسس هذه البلد للتربية والتعليم فهؤلاء طبقوا منهج مدرسة الشيخ أحمد بامبا فهم الذين تولوا التربية والتعليم مدة غياب الشيخ في المنفى القبر هم الذين كونوا الأجيال وعلموا وربوا أبناء الشيخ أحمد بامبا wa abnaa baadi kibaari almuridina wa nuxbatu alula min almuridina allasina fima baadu asbacu shucalan wa masaabiha fi lafaaqi wa min dimni hadihi wa min dimni xirriji hadihi almadrasa asuyuuxu sëriñ ma sàmm mbakke axun asxar li seex ahmadu bamba wa sëriñ moo roqee busa wa sëriñ muhammadul mustapha wa seex muhammadul fadil alxalifataani al awalaani li Cheikh Ahmadou Bamba ridwanullahi taala alayhim ajmain gannaaw waxtu yi dafa xat te bu nu ko waxee ci arab bu nu noppee dañuy jaaraat ca tànk ya wax ko ci wolof kon loolu ak ubbi rek la woon te jàpp nañ ne bu ñu ko waxee ci wolof ñi ëpp dañ ko dégg kon mbokk yi gannaaw bi ñu leen nuyoo sant leen gërëm leen ci ànd gi ngeen ànd ak ñun ci jataay bi di santit professeur yi nga xam ne ñoo njëkk a wax ndax noppalal na ñu ci yi nga xam ne mënoon nañ caa jaar bu mel nekk Souleymane Bachir ak léegi docteur Mouhamadou Sankhare ak ak professeur Bachir Diop ak préfet mi nga xamee ne joxe na ay orientation su préfet mi joxe ay orientation yu am solo ci yéen étudiants yi ngeen dégg ko déggin waxan wu am solo kon ñoom gàttalal nañu yoon gannaaw bi nga xamee ne sëriñ bi ci boppam waxal na boppam li tax mu ci université bi Souleymane Bachir jaar fa ñëw tekkil ñu ci ay minutes yu néew a néew faculté bii ngeen xam ne fi ngeen nekk tey muy daan kulliyatul ulum diiniya wal insaaniya wal xadaara yaakaar na ni mu ko exposé lu yomb xam na yomb a dégg la kon ñoom gàttal nañu yoon mbokk yi li ñuy tàmbale rek mooy sëriñ bi wax na ko ci biir ay waxam ne barab bii di daaru alimul xabir sëriñ tubaa ko sosal boppam 1891 samp fi sëriñ daam abdourahman loo ngir mu fiy jàngale xam-xam loolu dama leen di wax ne dara du asar sëriñ bi mënut a wax boppam waaye man naa wax ci moom li may waxe ci moom mooy sëriñ tubaab bi mu sañcee fii di daaru alimul xabir nga xam ne mooy école bi sëriñ tubaa njëkk am ci àddina bi mu sosee yoonu murit loolu la koy firndeel mooy yoonu murit sëñ Tuubaa mi ngi ko sos ci 1884 yàlla dogal mu nekk Mbàkke Kajoor ab diir xaju fa mu ñëw Mbàkke ba wàcc dëkk ay maamam xaju fa mu ñëw Daaru Salaam dëkk bi mu njëkk moomal boppam sanc ko waaye booba fadratu Daaru Salaam kooku fadratu mujaahadatan li nafsihi moom si Ahmadu Bamba xaasatan moo tax talu fa woon lenn bu masaan xëy day ne ci boppam ne ci yàlla di gëstu ba jant bi so mu ñëwaat ba ni mu ñëwee Touba sanc ko ci 1888 mu teg ci ñetti at yàlla bi mu sancee Touba aw turam gën a siiw ñu baree bari di ñëw ngir taasu ci barke bi ñii di taasu ci leer ñii di taasu ci leneen ak leneen ak leneen sëñ Touba am ñetti at yàlla Touba gis na njaxas gaa ñu bëgg a ëpp muy lan am na ñoo xam ne dañ fi fekk seeni bopp bokk indaale seeni soxna ak seeni doom ca loolu dafay am lu muy gàlloon ci tarbiya bi ak yar bi nga xam ne kon moom la sëriñ bi bëggoon mu daal di wax ak Serigne Mbacke Bousso maami Serigne bu Bousso mii nga xam ne moo yore kii bi moo yore woon kàddu gi ndax Serigne Hassan Bousso moo ko jur Serigne Assane Bousso Serigne Mbacke Bousso moo ko jur. mu wax ak Serigne sëñ Mate Lamine mooy nettili moo ne sëñ bu Bousso moo ma nettali ci laamu ji boppam ne ma bi nga xamee ne njaxas gi bari na Serigne Touba daf ma woo wa faawazani wa shaawarani li inchaai mahalin yatamakkanu fihi tamyisul fariqayni te mooy lan ñi bëgg a jàng ak ñi bëgg a yar ci loolu la Sëriñ Tuubaa ñëwee fii sanc daaru alimul xabir kon daaru alimul xabir mi ngi juddu gannaaw bi Tuubaa juddoo ba am ñetti ati yàlla mooy tolloog 1891 jooju waaye mu teg fa kan maami sëñ Maamoor mii ji dara du aasa sëñ Tuubaa mooy maami sëñ Maamoor ndax sëñ Murtalaa ko jur sëñ Murtalaa si Ahmadu Bamba ko jur waaye mu teg fi ab taalibeem bu ko doy di sëriñ daa Abdourahman Lo nga xam ne sëñ sàmm Mbàkke mi nga xam ne mooy caatu Maamor Anta Sali fii la jànge bu mokkal alxuraan bindub kaamil soo ko dem ca maam Cerno jànge fa xam-xam sëriñ Modou Moustapha mi ko njëkk a wuutu ak sëriñ Fàllu fii la ñu jànge bu mokkal alxuraan bind kaamil soo ko dem ca maam maam Cerno kon bu ñuy wax naan dañ ñoo yar bañ ne nër ba moom sëñ daaw moo ko ca def jàngal ga bañ ne ar mooy ko def ci ñoom sëñ daaw Abdourahman Lo moom i moo jur way juru sëñ Maamoor muy toog di soxna rahmatullah bu ngeen génnee fii nii kër gii moo doonoon kër sëñ Murtala fii la nekkoon way juróom fii la nekk ba wujj albarsaqul ahmadiya kon bu ñu demee ba yàlla dogal mu ñëw ci dëkk bii nga xam ne mooy benn dëkk boo xam ne sëriñ Tuubaa sos na ko mu am ñaari turu yàlla yeneen yim sos yëpp benn turu yàlla lay am xam ngeen ko daarul naan daarul xudduus daarul minnan ak ak ak waaye fii rek moo ci am ñaari tur yàlla muy daarul alimul xabir te sëriñ bi wax na ci biiri kàddoom ne daarul alimul xabir lépp a ngi ci lu ne ngi ci maamam jooju yi nga xam ne moo jàngal moo formi cadre murid yi moo jur muy juróom bu jigéen këram nekk nii sëriñ bi ñëwaat sampaat jàng jàngu bi foofii muy daaru alimul xabir kon dara du asa kon loola loolu tax ma ne sëriñ bi mënut a wax loola waaye man man naa ko wax bi loolu amee sëñ daa Abdourahmane Lo mi ngi sëriñ Touba sancaloon mu tàmbali njàngale moomee tàmbalee ko ci rakk sëriñ Touba yi boppam ak sëriñ moo roqee bu sëddi jarbaatu sëriñ Touba ak waaye sëriñ Sarr di doomi ba sëriñ Ibrahima Sarr jasaaka ak sëriñ Mbàkke sëriñ Mbàkke sëriñ Omar Mbàkke geloo nga nii la ko njëkk a jox ca booba fekk na sëñ Modou Moustapha ak sëriñ Fallou mëtagu ñoo dal ndax booba ñu ngi ci tollu ci ñeenti at ak juróomi at loolu yàgg na ko sëñ daam tàmbulee ci 1891 di jàngale ba ni yàlla dogale mu génn àddina bi 1943 bi sëñ daam génnee àddina 1943 mu école boobu dafa fay ci sëñ daamul musta nangu ne moom moom école bi moom ab jàngalekat la jàppe woon boppam moo tax bi ñu fi jógee daara ja dafa fay daara ja fay 1943 ba mi ñi ñi laa Mourtala jógee bi Cheikh Mourtala ñëwee tàmbali liggéey bi di ci yëngatu depuis 1957 58 ba yàlla defal ko tawfiix mu samb fi ak jàngu ci 1974 75 diggante bii ma wax ni 43 ba 74 75 moom daara di dafa fayoon Cheikh Mourtala moo ñu ko dekkal bokk yi foofu kon damay wax ne mboolem murit ñëpp nag laa wax ne su fekkoon te ne dañoo ba sañ daam génnee àddina dañoo bàyyi daara jooje mu gent ku faatu da nga la yooje ak Serigne Touba yomal xiyaamatu akbar ndax daara ji Serigne Touba njëkk a samp murid yi seetaan ba mu gent kenn ku nekk am nga ca part de responsabilité kon bu Serigne Mourtada ñëwee dekkalaat daara ji 1975 kon def na li ñuy wax léegi alfardul kifaayi xam ngeen leen mooy fardu kifaay yi ndax Souleymane Bachir gis nga ni mu ko ni lu am solo ne fiq kon mooy li nga xam ne kon mooy loolu duñ ci duñ ci kon waaye fardu kifaay yi la bu ñu naroon a lay waji ak sëriñ Tuubaa ndax bu loolu amutoon nag ñun ñëpp ku di murit ku mu a doon boo faatu da nga layoo sëriñ Tuubaa ndax daara ji sëriñ Tuubaa am tabax ko ñu seetaan ba mu gent ñëpp am nañ ci part de responsabilité bi sëriñ Murtala ñëwee 74 75 samp daara jooju di ci dox di ci dox ba yàlla dogal mu sonn ci lool dem na fi ay voyage yu bari 74 75 dem na wër na pays arabe yëpp ba yàlla dogal bi mu ñëwee ba 1967 waxat sabaxal an tafaddala bi shukri ashuyux wal wa al masriyin نعيتكم علما بأن الأثر قد تبنى هذا المعهد من سنة 1966 wa sabaatin wa sittiina wa sabaatin wa sittiina wa lii jariidul ahraam allati u'lina fihi qaraaru at-tabari al-azhar nashkurukum waxar sabaxal kalaamu li mu dil jalsa an sabaxa bu yàlla dogalee loolu am sëñ Murtala sos jàng boobu ci 1975 ne ca sonn ca lool ba yàlla dogal mu jóge mu jóge fi dem ci këru dëgg ci niñ ko bokk xamee 2004 mois de août wax nañu ne bi fi Serigne Mourtala ji jógee bàyyi na fi du tolloo quarante neuf mille élèves am ñuy wax cinquante mille pour arrondir chiffre bi léegi nii fii ñuy wax ak yéen astor mi ngi ci toll ci quatre vingt dix huit mil neuf cent bu ñu ko arrondir daal dañ mën a wax ne kon mille élèves mi ngi ci léegi foofu dama bëgg ñu taxaw seetlu tuuti léegi ndax mille élèves yi fi ne. dañ naan kon sëñ Mourtala bàyyi na fi 49000 kon sëñ Maamoor dolli na ci leneen ba mu nekk 1000 100000 déedéet ba mu nekk 100000 ndax noonu lañ koy ba calculer mathématiquement non li tax duñ ko calculer noonu mooy sëñ Mourtala 2004 la fi jóge 2004 ak léegi nag yaakaar naa ko am xel war ngaa xam ne amul benn élève bu nekk di asseur di fi jàng ba 2004 amul. 2004 ba nëgë ni boobaag léegi ñaata at la fukki at ak fukki at ak juróom-benn ndax xel nangu na benn élève nekk ci al azhar di fi jàng ba nëgë kon dafa mel ni kon 100000 yu bees yi yëpp sëñ Maamoor moo ko liggéey kon nag ci lool la sëñ Maamoor ñëwee ne topp topp tànk yooyu li sëñ Tuubaa wax ne al am al ilmu wal amalu jawharaani li xayri daarayni yajlubaani sëñ Tuubaa ko wax ne bala ngaa mën a tekk ci ci àddina kële wax na ko léegi ki doon wax ne ab arabi saala kon léegi tekki na ci lii nattukaay yi àddina di wax tekki muy kon kee wax ne arabi saala woon man bokkoon naa ci doon wax ne man du ma mas a làkk français kon gis nga exemplaire bi mu fi indi ak ñeneen ak ñeneen ñeneen loolu tax sëñ ne xam-xam ak jëfe xam-xam mooy léegi wurus yi nga xam ne ci la nit ki mën a tege tànkam ba mën a àgg fu mu jëm sëñ Maamar loolu la xam léegi mu sëriñ bi waxaat ne wa baadu fal ulumu afdalu tilaat wa xayru ma llahu abdan afa bala ngaa mën a doxal sa àddina mu jag bala ngaa mën a waajal sa àllaaxira ñu rafet ca njortu faaw da ngay am xam-xam sëriñ Tuubaa dem ba mujj far mu tënk ko ne wa kullu ilmin bi manaafiati léegi nag wa kullu ilmin bi manaafi'a fii jooju ci la sëriñ Maamoor nee kon nag bi manaafi'a fi lépp loo xam ne dana la jariñ sa wàllu àddina waaye lépp loo xam ne dana la jariñ si wàllu àllaaxira ci la kariyee nag yii nga xam ne kon mooy léegi maanaam ay sant foofu it ci la gisa gannaaw moom bi ñuy sos daara ji 1974 75 sunu mbokk égyptien yi al wufoot yi nga xam ne ñoo njëkk a ñëw booba a seyxu raisul jaamia kaana saayixan li sayaratihi wa yuwassiluhum ila xaajaatihim wa ajjara lahum daaran fii xayi daari xudus kon loola lu mat a bàyyi xel kon ba muy metti jaar fi booba moom ñu ngi fi woon moom moom sëriñ bi benn ford la yoroon daa ko dawalal boppam di ànd ak isib yi di leen traduire di leen jox nekk ci seeni yitte ba école bi taxaw yéemul ci loolu waaye daf daan dugg ci àll bi bu duggee ci àll bi booba xam ngeen ne arabistan moom booba mooy noonu société bépp arabistan ñu ne tuuge waaye contre sëriñ tuuge waaye contre sëriñ loolu moo nekkoon réponse bi waaye sëñ Maamoor ànd nag ñi ak dal bu demee ne sëriñ Murtala moo ñu yónni ngir ñu taxawal ay jàng jàngu jàngu xam-xam ak diine xam nga wax na ko léegi ci biir waxam ne ñun jànguñu ay naar ak i làkk amuñu si soxla diine lañ soxla te yàlla nattoo ñu diine jooju ñu soxla la ca gën a wér ñu ngi wàcce ci alxuraanu ci luxatul arab yi kon faaw dañuy am mun munta ñàkk ñu jàng waaye jànguñu ay naar jàng ñu ay arab suñu yoon nekkul ca ñoom waaye ñun diine bi matière bi nga xam ne moo ne ci langue bi ñun moom lañu ñu soxla loolu moo taxoon mu daan wax ak nit ñooñi ne leen sëriñ bi moom ma yónni ngir ñu mën a taxawal ay jàng yoo xam ne xam-xam lañ fay jàngale kenn ndax kenn ku nekk xam na ne école maanaam xam-xam lañ fay jàng boobu yorutoon dara nam daan def léeg-léeg juróomi dërëm ak ñaari dërëm yooyu muy yor ñu koy joxe addiya di ko siyaaree moom lay dajale bu ci mënee am léegi ñaari liitari essence mu yóbbu ko mbir kilaan mu def ko bu ko mënul day xaar ba ëllëg dajale ba mën ñett tiimeer bu ko mën a yóbbu pataar mu yóbbu ko pataar et cetera et lii la nekkoon kon ba ba ba sëñ Murtala wan ko gannaaw bi mu ko wanee gannaaw nag mu ne man wurumaa yàcc na yasar ndax sëñ laa dafa ñëw fekk si Ahmadou ma am fu mu yemoon sëñ Murtala yaa ñëw andi beneen révolution bu bees ci njàngum xam-xam mu ne kon nag damaa war a sof wax na ko ci biir waxam ne sosuma dara waaye damay sof ànd ak modernité comme sëñ Murtala daa sofoon ànd ak modernité li fi sëñ Ahmadou Bamba bàyyi woon moom it mu ñëwit mujj sëñ Murtala mooy dafa sof te loole ànd ak modernité asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu sëriñ Mamor maa ngi lay nuyu di la nuyu nuyu ba gën a euh, tedd ka màgg te mooy nuyu boobu ma la jox bu doon lu ñuy jàllale dañ koy jàllale waaye tey jataay bi yaa fi nekkal sëriñ Touba kon ci yow rek lañ koy mën a yemale di la jot loo nuyoo bi ci bu mu war a mën a jàll di nuyu sa gan yu tedd yi nga xam ne ñoo la fekk si tey te ñépp nekk ay kilifa ndax kilifa weesuwul borom xam-xam ak foo amee xam-xam ak nu xam-xam ba mën a demee te jëm ci lu baax kooka kilifa la euh, ab daya deesu ko deesu ko yëkkati ci kéemu jur wala kële ab day ñu ngi koy yëkkati ko ci koo xam ne nii li tax yàlla bind ko ma nga ca muy am xam-xam kon bala ñu yëkkati kàddu bi ñu ñaan yàlla yàlla dolli waatal nu xiiwal seex Mamadul Murtada ci barsaqul mamine ndax liggéey na liggéey bu rëy rëy boo xam ne ci àdduna bi alhamdulilahi rabbil alamin bi nga ko wutee te am yitte mu mën a matal waaye sëñ Murtala bu ko yàlla fayee pay gi dana rëy lool ndax fekkoon ñoo xam ne xamuñu dara nga fexe ba ñu xam dara bay xamle ba mu agsi fii loolu kon maa ngi sàkku ci jotaay bi ñëpp ñaanaat yàlla Cheikh Maodo Murtala yàlla dolli ko yu fa mu ne ginnaaw loolu nun day ñëw nañu nu ma jataay nag jataay bi yàgg na naam waaye danoo jaral eh, bu kenn yàkkamti ndax xam-xam mu ne su ko am mukk ndare bu di coono nun ñuy wax liñ daj bu leen ko waxoon yéen ñi ne ci tànt bi li ñu daj ci ci daara yi kenn su ko daj te tey gis nga pay bi bi màgse kon ni ñëpp dal rek te xam ne jataay bi bu ñu doon dem ba timis bu muxtaarum tisbaar mi jeexul ñu soog a am ngànt te muxtaar bi dafa gudd mu ngi continuer euh, ba ba ba Euh, ab diir ci kanam taxul sax muxtaarum tiswaat ya daa dajab lislaam bu fi nit toogee ñenn ñi nga xam ne gàtt nañu àll ba dañuy jàpp ne rek dañoo war a tees dem julli kon loolu la woo xam ne jataayu sëñ Tuubaa waxtu wu ci lay tàmbalee ci lay yem waaye bu ton sëñ bi fii ba gee dañuy toog di wax ci yow di la wan nit ñi ni ko sëñ ndaam waxe léegi di la wax yow a kan ndax doo doo koo xam ne yomb nga man mi wax nag ku dul yàlla rek noppi na ci man waaw yàlla rek waaye waxuma ngir lenn waaye li ma gëm nag lay wax yow ku bari yitte nga koo xam ne bokk yépp war nañoo xoolaat ci yow xam ne bu doon mission dañu lay yónni dañu lay yónni bu doon yónnee amaat na damay jàpp ne dañu lay yónni ndax man lu ma jommal bariwul ndax li yàlla defal ñépp defal na ma ko ba noppi waaye nag fu ma gis dara ma xam ne dara nga ko danaa fa dem man taatam ca dara jooje kon loolu laa bëgg wax rek ci biir bopp bi wan ne jëmm ngi joo xam ne buñ ne nit baax na bokk yaa ko wax waaye mbokk mu baax moo ko war a wax am na mbokk yoo xam ne nii mënuñoo seere ci seen mbokk loolu kat moo waral wax ji ma di ko wax waaye kon sa waxi bopp rek dana doy wala waxi ñi fi wax wala ñi bëgg wax waaye nag du tee nag mu toog waxaat ñi ñi di jàng si ñiy jàngale ñi ñu yabal si état bi joxe lu mat junniy étudiant ñu sant leen gërëm leen ci jëf jooju xam ne fi ñu dugal loolu wëccuñu ko ndax fi ñu ko dugal cosaanam jàngale na léppam jàngale na ci wet gune ndax sëñ daam wax na ko waaye yittey boppam it nag ndax nit moom bu fekkee ne day damoo ndeyam ak baayam rek waykat ba nee na kooku du tekki file mais yow tey bu ndey yeeg bàyyi dellu si waatoon daañ xam ne yaa ngi ci itte joo xam ne nii li mu fi bàyyi woon dara yàquwu ci loolu nag bu ma teewee man tam te teew jafe nga jaral ma ko danaa la seerewaatal lii ci kanam ñépp wan la nun de mbokk yi nun ñépp noo ngi sawet mépp mbokk mu bëgg lu baax tey doxal lu baax te xam ne lii jëm na fenn ah université naan yombul waaye yitte ko ëpp doole yitte moo moo àggale fu université àgg te yaa ngi ci yitte ji kon noo ngi ñaan yàlla yàlla àggaleel la ni nga ko bëggee te wax nga ko léegi ne boo màggatee waaye sum sañoon nga yàgg bi ndax fa nga xool yow fu sori la te fa nga xool fa la sëñ Touba xooloon fa la njaboot yépp xooloon sëñ sëñ Murtala fa la xooloon kuy xor-xor yi mu ngay jéem a xool foofu kon yitte jàngoogu yàlla na la ci yàlla dimbale eh, nit ñëpp nag bëgg nañu lu baax dafa am sama doom sa jarbaat di sama jarbaat Abdou Mbacke Ndaw meeru Mbacke mu ne joxe na ambulance médicalisée ak fauteuil dentaire boo xam ne semaine bi dana ko andi dana woon naa ko dugal sama biiri wax waaye loolu lu ma neex la daa bërki dem rek Cheikh Maodo Mountakha woona ma yóbbante ma ci moom ay wax te jëf lu baax rekk tax kon Abdou Mbàkke ku bëgg a dem te bëgg a te te liggéeyal lislaam war ngaa liggéeyal sëñ Mamoor ci ci université bi ku bëgg a dem laa wax moo xam loo mën a doon parce que sëñ Tuubaa bii koo xam ne nii yàlla xañu la ca lam la ci jox war ngaa góor góorgóorlu di sëñ Mamoor soxlawu ko ndax yitteem la ci def doy lu weesuwut loo doy lu weesuwut lu la li nga mu doy la waaye nag koo xam ne war ngaa sant sëñ tubaa ci yitte jëm la jox war ngaa jàppale sëriñ Mamor ci liggéeyam bu réy bi mu sumb ci àdduna bépp la am ci murid yépp ndax li mu li mu yor ñu bari yoruñu man nag fi mu ne boo gisee may sonn bu nit yoree lu ma yoru dama ko naa dànn waaye du ñëpp laa naa dànn de déedéet mënta nekk sax loolu bu doon yàlla yàlla résilier sama mbir te yàlla laa gën a fo bëgg bëgg gi ma ko bëgg sama bopp tax yàlla laa gën a fonk ci lu may fonk waaye nag bu yàlla defee nit koo xam ne nii fa mu ne newoo ko da koo war a jàpp te jàppale ko kon nag sëñ maam war a ngoog liggéey baa ngoog na ngeen ci jàpp jàppale moom ku dul yàlla soxla na jàppale na ngeen ci jàpp ndax mu dox bu bu bu doxu bu ngeen jàppee ne doxit barigo wala fii dañuy wax ne barigo bu ñuy taf ci xawma lan mbartal boo ko jiñaxee mu dem boo ko jiñaxul mu dem lii nag ndonal sëñ Touba la ci moom sëñ Touba lam ñaanoon ah, falur wala wana fu jaay njariñ li ñëw na ku bëgg njariñ ñëwat xat fa kon kon kon njariñ li ci la sëñ maam moo di ku ci ku yéene ni ci ñëpp nag ne ñëpp taxaw du koy yalwaan du koy kuy kuy kuy kuy kuy doyet du koy laneen dafa nekk ci lu wóor loo xam ne man bu ma teewee danaa ko danaa ko danaa ko wax te yàlla rek tax ma di ko wax te mu xam ne gëm naa li may wax sëñ Maam Mor yàlla na la yàlla jàppale te taxawu la te dimbale la ndax liggéey bi taxoon sëñ Touba liggéey boobu yaa ngi ci na kenn na koo taalibe yi na koo diine ji lépp na koo kenn kon monsieur le préfet noo ngi lay santaat bu baax ci yitte ji nga xam ne wax nga ko te déglu ko te mu jóge ci président de la république nee ko mbokk yëpp a nga koy sant da jàppale na koo xam ne ku ko jàppale jàppale na ñëpp ku ko jàppale ñëpp jàppale loolu laa bëggoon a wax di sant ñëpp di sant gan yi ne sëñ bi wax na leen ko man si lu naa rahbun li man saarahu naanu siwaahun fiihi wa taaraf wa kullu ma fii xalaalun lahu illa lazi aramoo xali asalaamaaleykum wa rahmatullah bismillahi rahmani rahim wasalaatu wasalaamu ala ashrafil xalq sayidina muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi tayyibin tahirin Mesdames messieurs, je n'aurais pas besoin de dire que nous sommes ici sous ce et nouvel amphithéâtre chez l'artisan de la bonne cause, celle du savoir, dispersé, décidé savamment sous la direction d'un des plus illustres petits-fils de Khadimou Rassoul Khadim Rasoul, docteur en islam et serviteur du prophète de l'humanité. Chers étudiants, sachez que vous venez d'atterrir dans un milieu qui, jadis, était hostile et austère, qu'un homme de Dieu, dont l'intelligence inappréciable a permis de transformer en un aujourd'hui favorable à l'acquisition de toute forme de connaissances utiles, marquant ainsi la maturité des fruits d'un arbre magique planté, euh, je veux dire, cet arbre de savoir créé par euh, notre regretté Gouriala, entretenu et amélioré par Selim Mbake qui, contre vents et marées, est euh, en train de traduire éloquemment et d'exercer une application pratique de la formule consacrée lancée par son grand-père en faveur d'un monde développé, juste et équilibré. إني أجاهد بالعلوم والتقى عبدا حليما والمحمد الشاهد. Nous nous réjouissons bien, sûr naturellement de la collaboration féconde qu'entretient l'administration de notre pays avec cette institution qui fait partie de ce qu'il y a de mieux donc de la crème dont dispose notre cher pays. À travers ma voix, toute la famille adresse ses chaleureuses félicitations à Serine Maman pour le travail colossal qu'il a su abattre et accomplir, dont les résultats sont aujourd'hui palpables. Je crois que notre présence ici en témoigne éloquemment. Euh, ginnaaw ba ñu sant yàlla julli ci yonent bi Muhammadu Rasulullah ñoo ngi e, julli ci yonent bi di sant Xaadimu Rasuul ak ñi nank diine ji ci Sénégal yépp ak mbokki jullit yépp ak professeurs yi fi teew te seen kàddu leeral déjà li mbir mi deme ci mbirum jàng Serigne Touba la mu jëkk annoncé couleur mooy inni ujaahidu bil ulumi wa bi tuqaa waaw te ñaar yooyu mooy régir monde bi ci nu mu gën a rafete euh, professeur wax na ko léegi Euh, njàng mi euh, àddina des koy saytu sëriñ Mouhamadou Moustapha dafa mas a wax soxna may ne ko àddina ak alaaxira lu ci lu ci ne dafa am dañ ko war a jox cëram te lu ci manqué day mel ne borom la ndax nit ki bi la suñu borom joxee xel la wàcce yow nga joxe xel yaa mën a jëriñoo xel mi seet nu sa àddina di jege ak nooy waajale ëllëg alaaxira kon alhamdulilah loolu lépp mi ngi jaar ci xam-xam kon sëñ Maam Mor ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax ndax li nga jëf da def traversée du désert jëf ko ci milieu bu jafee jëfi lii nga jëf te ki la ci jiitu di góor yàlla di suñu maam yal na yàlla yokk leeram Cheikh du Mourtala Mbacké muy jëf ju rëy rëy rëy Cheikhul Khadim defe naa ne euh, volet éducationnel la gënoon a jiital boole ko ak liggéey mooy liggéey ak jaamu yàlla te yàlla mu loo ko jaamu te xamoo ko boo koy yaa ulul albaab la'allakum ta'qiluun yàlla li may faral di wax Dieu n'adresse pas la parole aux idiots dama koy faral di wax yàlla borom xam-xam yi ngay wax kon alhamdulilah xam-xam ñuy sàkku étudiants yi ñëw ngeen ci milieu boo xam ne am ngeen ndax li ñu waroon a def ci réew mi ci sama xalaati bopp mooy képp kuy jàng danañ la visiter région Sénégal yépp nga xam ne réalité national euh, ku ci war a jàng itam nga def stage dem ci dëkk yépp xam seen réalité door a mën a saytu dara ci réew loolu yaakaar naa ne ku mel ne profil yi ñoom danañ ko pratiquer parce que fu ne lañ leen di affecté te xam nañ expérience ma leen wax kon sëñ euh, bi nga amee leen bii nga xam ne day mel ne jamono dañoo nekk ci euh, waxtu woo xam ne képp ku bëgg lu baax day mel ne dañ lay tënc di la di lay yàqal seytaane daal di jóg mbooloo lépp jóg pour da ngay def ñuy gêner ko empêcher la waaye yàlla may la fit akum xel akum dal akum muñ goo xam ne da ngaa topp sa njëm xam li nga bëgg nga jaar ci boole woo dara ba loolu moo la may lii tey kon noo ngi la ciy sant bu baax a baax ndax dëkk boo xam réew moo xam ne sax wax euh, jikko yi dañoo xaw a yàqu ndax dafa am ñeenti yëpp yoo xam ne dama koy faral di lim euh, defe naa ne euh, sëriñ loolu ki fi mujj wax di sëriñ loo wax na ko léegi daj li sëñ bi daj euh, mënu ko ñàkk daj ndax réew moo xam ne boo dee seet jamono dem na ba yàqu ba euh, kenn ku ne lañ lay déggee noonu la leen di jàppee duñ ko vérifié muy benn kenn ku ne itam fa nit ki toll fa nga toll ci xolam fa la lay attee du ci seet suñu borom tabaraka wa taala ñetteel ba xaalis sa xew ma di ko wax muy ñaar muy buuxante ak jiróo waaw moom lañ bëgg a yore àddina buuxante bi mooy daraja yi giiroo bi mooy xaalis bu soxla bu ko defee ku mënta jaar sa kaw jàng def la am ñeenteel ba mooy loo ëppalee nit mu la milieu bu mel noonu boo fa defee lu mel nii xam na ne bu fekkonte ne amoon na fukki nit yu mel noonu rek Sénégal dana gën a jëm ci kaw kon sëñ Mame Mor ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm te li ngay def yaa ngi koy defal sa waajuroo waaye yaa ngi koy defal mboolem umal islam yi yaa ngi koy defal mboolem senegal parce que ni yëkkatee euh, turu Sénégal ci biti yaa ngi dem ca Parpa yaa ngi dem ca feneen euh, soori Sénégal yi yaa ngi koy améliorer di gis ambassadeurs yi di gis euh, waa bitim réew fa ñu nekk seen kilifa yi nekk foofa di waxtaan ak ñoom di dem fenteeg ñoom te loolu defe naa ne acte de citoyenneté ñëpp la war waaye fi nga ci toll vraiment kenn tollu fi kon yàlla yàlla di dem soo xam euh, di jaaxle seen i ñu ngi sant des moo oxy bi ma jiite. mooy organisation munazama xaadimil Moustapha bi tadaawunil islami mooy organisation xaadimil Moustapha pour la solidarité islamique bi nga xam ne maa ko jiite ànd ko ak professeur Niang danañu consacrer orienter toutes nos activités jëmee ko ci école yi Azhar yi ak ci université bi incha allah ndax am na yeneen